di nuyu kilifa ji diine ci réew mi di ziare mboolem njabootu Serigne Touba ak fu ñu mën a nekk ci àddina di nuyu jëwriñ alaaji Mbàkke yu fay di ko ñaanal tawféex ak sutura di ziar baax sëñ Cheikh Balla Samb sëñ Jibril Ndaw sëñ Mbàkke Mbooj ak mboolem kuy ŋànk ci liggéey ci télévision bi dellusiwaat ak yéen ci seen émission bu mag bii di eh, diwaan diwaan ñu baax ko di àndandoo ak eh, Serigne Jibril Ndaw mi nga xam ne mooy directeur programme Touba TV Eh, saa su nekk ñuy ànd ci nga xam ne ni mooy eh, liggéey bi ci émission bu mag bi di bokk itam li nga xam ne mooy thème yu wute ak boroom xam-xam yu wuute yi ñu ci dalal eh, tey jii nag xam ngeen ne li ñuy wax rek lu ay di njàmbat ni nga xam ne ni moo xew mooy xaside yi ak taxawaay bi ci Cheikh mun Muntaxa am ci fas yéene berbis boo xam ne nii dana ko def muy la onze bi mu woo mbooleem ahlu xasida ngir ñu taxaw li nga xam ne mooy ñaan ak dundal li nga xam ne ni mooy bis bu màgg boobu Eh, ci ni ko Serigne Touba don ñaane lim waxone lepp ne am eh, ci tag yonenti bi alayhi salatu wassalam ci la ko amé lolu mo waral mu meuna am safras. adina ak sos alakhirah lolu moral Touba TV jël ci walam xam ngeen ne ba léegi ñi ngi lekkelo ak ñi nga xam ñoy liggéey ci walu bi eh, ak ñi nga xam ñom la serigne bi tegoon liggéey bi ci seen loxo waye tay ji nak ñu fasiyene ñewat nak ci njariñul khasida ñewat itam ci kemtane yi ñu meuna jangate ci li nga xam ne moom la Cheikhuna Ahmadul Xaddim bind lépp nag ñu jëm ko ci waajtaayal bis boobu ndax jàpp naa ne kenn ku ci nekk euh, bu ñu waxtaanee dëgg dëgg dëgg dayoo bi nga xam ne ni xasida am na doonte euh, mbokki taaliba yaa ngi ci nab bi seen kem kattan dana nekk loo xam dana yokk njariñ waaye dana yokk itam aw xel wu ñuy daw euh, ci xasida ndax borom li ñu waxoon rek ne ba mu koy bind fam ko doon bindee ak contexte ba xel nanguwul sax ni bu ci bu ci bu amone len luñ ci yokk sax dañ nan xel man nako nangu ndax condition yam nekkon waye ba fii ñuy wax ak yéen kenn du ci yokk virgule kenn du ci wàññi virgule ndax mat na sëkk ba pare mu bolé nak lépp nak di ndimbalul jam ñi adina ak lool alakhirah lool mo waral ñuy ñaanal bax Cheikh Mouhamadoul muntaha sun borom yagal ko fi lool te muy wér ci yeen gi mu yéene ummat islam bi yëpp jam ci yeen gi mu leen yéene tawfiq ba wax ne nañ delu wat ci xasida de na ko sëñ Tuubaa waxee woon am daahu xaadat lana salaaha wal amna wat tawfiqa wal falaha day mel ni ñetti yooyu rek ku ko boole sax day jar day jar sëkk sax ñu indiwaat xaside yi beral ko bis jàng ñaan suñu borom def ay tawasul ñaan ci réew mi waaye ñaan ci àddina si suñ borom tek loxo ci mbolé ummatu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam lolé nak liggéey bobu xam ngeen ne jamono yëpp Touba TV sax mi ngi ci def ay waal yu am solo waye tay jàpp na ne moy doon bis bi nga xam ne ni xëy moy mujju ci teunk gi waye jëmal waajtaay jëmal ko ci bis bu mag bobu lol nak jàpp na ne gan ñi nu am sëñ Jibril ginaaw bo nuyo dana nek gan ñu dëppoo ak li ñu war a ci xasida yi ndax seen doxin ak seen taxaway buñ ci fegg ko melni serigne Abdoulaye Diop Bichri khadimul khadim nga xamne ñu ci télévision Touba TV Euh, di ci liggéey liggéey bu am solo def ci itam ay abyaat yoo xam ne ni ay leeral ci xasida yi gis nga émission bu mag bi ñuy def ci kenn sëriñ bi saa su nekk mi ngi jël ab mbind di ci waxtaane jëmee ko ci wàllum xasida yi ak li koy li koy jari li ciy jariñe euh, waaye sëriñ Xaadim Njaay Kayaar euh, di koo xam ne ni waxuma sax kilifa gi ak xam-xam bi waaye seetlu toppook li nga xam mooy xasida yi ba créé émission yoo xam ne ni lépp day jàngale xam-xam ak di leeral li nga xam ne mooy mbindum Serigne Touba Xaadimu Rasuul tey mu jóge Kayaar waaye nekk fële ci télévision Lamp Fall TV ñu suñu ci liggéey bi ñu di ko jaajëfal bu baax a baax ci teewaayam di ko jox wàcc waay mu amee waaye Serigne Saliou Samb eh, ku ne xam na itam liggéey bi muy liggéeyal Serigne Touba ci di ko waxtaane ci réew mi ak bitim réew dikk borom xam-xam boo xam ne kenn dootu ko présenté téléspectateurs yi rawatina fii ci eh, Touba TV eh, ñuy am mbégte bu baax a baax ci teewaay gi mu am ndax gis nga bi Serigne bi taal taxawalee bis bi rek Eh, teg ko ci loxol sëñ Youssou Diop mi nga xam ne mooy daari darxee di ko ziyaare baax di ko ñaanal eh, sëriñ Bachirou Mbackeem Cheikh Abdoul Khadir sëriñ Amsatou Mbackeem sëriñ Chouaïbou bu ci taxawaay bu am solo am ci xes yi ñoom ñii sëriñ bi daf leen a woolu ñu def ci liggéey bu am solo fa ca Touba muy sëñ Saliou muy sëñ Ablaye eh, kon eh, loolu moo waral tey jii ci ñi féete Ndakaaru sëñ Xaadim ñëw teew si waaye sëñ Pape Ndiaye Kara mi nga xam ne nii jarbaat la ci eh, Cheikh Modou Kara xaw ma doomi nijaayam sax waaye moom it am na ab yaat yu am solo yu sëriñ bi defoon général ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha ca ba ñuy door a door liggéey bi loolu moo waral ñu woo ko mu ñëw bokk ak ñun li nga xam mooy plateau bi kon sëñ Jibril ma la bàyyee nga nuyoo day mel loolu ko sofee ci ñu war a waxtaani tey képp kuy topp di nga am bind boo mën a jël dëngmal ci bis ba da nga am itam bind boo mën a jël ci xaside yi ci ñu xam ne sëriñ bi léppam mooy xaside yi bañ na ko ba waxal boo ne sama karaama sax mooy sama mbindum loxo sëñ Jibril jërëjëf alaaji sëñ am mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu laqin lisaani waxlulan minhu lxuqad wajahalhu dakiran wa shakiran abad mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di leen baalu àq te di leen baal àq di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha mm-hmm. ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér suñu borom dëgër tax dëgëral taxawaayam mm-hmm. wéral ay cëram te fekk fanam bu baax a baax a baax a baax yàgg fi mm-hmm. lool yàgg liggéey suñ Tuubaa ñu ngi ko koy ñaanal ci ñaanal kilifa diine yi nekk ci réew mi yépp euh, sëñ am yaakaar naa ne nuyoo bi mhm. dama koy sof ci sa nuyoo bu matale bi rek mhm. euh, di am mbégte ci ànd ci jataay bu mel nii mhm. ndax euh, waxuma la karaama yi nga xamante ni moom moo nekk ci xaside yi te Sëriñ Tuubaa waxal ko boppam waaye euh, solution yi àdduna daa nekk ci xaside yi àdduna bi saabu bu ñu mosaan jaaxle sëriñ bi lañuy ñëw dellu ci xasida yi mhm. la xewoon 1927 25 ñu jógee madinatu a fekk si ko fii mhm. mu jox leen génn xasida seen aajo faju mhm. kon yaakaar naa ne ñun bu ñu mënee toog fii Cheikh Mouhamadou Mountakha xam loolu doole benn ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko sëñ Modou Kara di waxee maa ngi koy ziar bu baax a baax day wax naan waxuma la xasida waaye benn bayit sax ëpp na ci aajo mu ne man bu may dara di metti damay jël ak siin su tooy ma jël jenn tomb ñaan ca suñu borom teggil ma loolu mhm. kon pas-pas boobu fa la taalibe yi war a nekk mhm. ci xaside yi sëñ Tuubaa yi mm-hmm. Mm-hmm. nga xam ne wax waxuma la waxuma la ay bayit waxuma la xaside gi mm-hmm. waaye wenn bayit wenn sidda woo xamante ne leer nañu fa mu tegee sëñ baa ko fa teg rek yamut yamut ak dara ci àdduna kon nag li ci des mooy pas-pas yi te loolu la Cheikh Mountakha di def foofu mm-hmm. seen ñëw nàmm pas-pas yi mm-hmm. gis nga suñu am mujaddid mm-hmm. day toll jamono joo xamante ni il faut que ñu àdduna bi dañ koy rénover ni ñuy demee ba pas-pas yi di di dàcc di jox il faut ñuy ñëw te loolu nag leader moo ko mën te sëñ sëñ Mountakha c'est un c'est un leader ci lépp mbooleem lu mu mës a digle moo ci jiitu bu fekkente ne ab yar la akub taalibe amul kenn ku ko ci ëppale xam-xam noonu tarbiya bi noonu matale gi noonu te lu mu digle bu alal alalam du ko fekk kon nag koo xamante ne kilifa gu mel noonu suñ ko amee moom la àdduna bi yépp manqué mooy kilifa goo xamante ni la muy digle da cay jiitu di ko jëf boole ko xam ak maandu kooku nag bu ñu woowee mhm. digal ñu ni lii day nañ ko def mhm. loolu moo war a doon suñu suñu suñu njëriñ mhm. gis nga bu dul woon sax xasida yi moom rek si nim sellalee diggam ak suñ borom lu ñu digal dañ koo war a def te buñ ko defee aw yow lañ ciy fekk dëgg la kon xam naa ne <laughs> ju taxaw foofu rek di rafetlu yi tamit nag jataay bi mhm. di nuyu tamit comité d'organisation bi nga xamante ni mhm. foofu it bëggoon naa ca suñu nga may ma rek ma mhm. beral ci ak sant ak ñaan suñu am satu mbàkke moom solution yi bu ndax dëgg yàlla gis nga euh, suñu suñu borom du jaawale jëfi kenn kenn dëgg la te nag mbir moo fi waaye taxawal ngir suñu borom bis dana ñëw mbir moomu wuy si la loolu yi sëñ Abdou laat waxoon ni ah bu ngeen ñaan bu nangoo day sonal borom. borom su ngeen demee ba mënatu leen maa gis di may nuyu ci fenêtre. Mm-hmm. ak ak ak ay giri di dox sama diggante yéen na ngeen ko sante yàlla te xam ni yàlla euh, suñu borom may doxalee noonu. Mm-hmm. waaye tamit si ñam sa yi tamit na xam ni. Mm-hmm. lii day lam doon jëmbat di ko sax. tey ji àgg na foo xamante ni waaye na ko leer ni fépp fu xasida yi àgg journée xasida àgg fa turam dana fa àgg mhm. loolu rek doy na mhm. leneen lu mën a xew moom na jàpp loolu jàpp ni pas-pasam ak diggam ak Sëriñ Tuubaa mhm. lii nuy mu doon liggéeyal ci xasida yi Sëriñ Tuubaa fay na ko te bis bi kanam la jëm ñeneen ñi ci nekkoon ñëpp nag ak di ko jàppale ëhlu xasida yëpp nañu xam ni tamit xasida yi rekk moo fi nekk moom la Sëriñ Tuubaa am dëgg la ñun murid yi tamit moom la ñu am te suñu digganteeg suñu borom it moo fi ne dëgg la tuwaasile aqlaami ilallaahi aabidan mhm. kon na gannaaw loolu lépp am na nag mhm. nañ ci gën a góorgóorlu mhm. kenn ku ne xam ne bis bi sa bis la war ñu yam ci te xajut ci mbas mi foofu it wax dëgg yàlla am na ci loo xamante ne sëñ am balaa ñoo dugg ci waxtaan wi dinaa ko ci rafetlu ndax i tamit buñ nee mbas mi daa nekk ci àdduna sépp kenn ku nekk fa ñu ne nañ fa jàngee ña munta dem nañ fa toog jàng dundal ko ndax kii si barke xasida yi mu jóge fi ñu bañ ko yemale tubaa yëpp nañ ko tas ci àdduna sépp te loolu sa gaa yaa ngi kër sëñ Touba yi nekk si àdduna yëpp a ngi yëngu mhm. fenn fu nekk nañ ko fa yëkkati barkeeloo ko fa mhm. yëf yi gëndaloo mhm. daj àdduna suñ borom defal ñu sutura defal ñu tawféex feebar beeg wopp bi yëpp jóge fi si dëgg la balaa ñoo dugg ci waxtaan bi bàyyee ak gaa ñi jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Jibril euh, ci euh, nuyoo bu am solo boobu dafay mel ni daf ñuy daal di dugal coow rek ci waxtaan wi euh, ni ki yéex gi nu yéex door waaye nag ba tey dañ ko dabaatal ci biir jataay bi loolu lépp dafay tàbbi rek ci yërmande yi sëñ Muntaxa mhm. ak compréhension ak xamam àddinaam ci euh, doomu aadama yi ak bañ a teg benn nit loo xam ne ni dana ko gàllankoor ci digganteem ak yitteem mhm. yooyu yëpp nañ moo tax ñu ñu war koo gën a ñaanal sax suñu borom yàggal ko fi loolu te mu wér waaye ni nga ko waxee rek si ci sëñ Amsatu mhm. taxawaay bi nga xam ne am na ko ci xaside yi noonu la valable ci euh, ki nga xam ne ni mooy sëriñ euh, Youssou Diop tamit ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne am na ko wax dëgg yàlla ak mboolem ñi nga xam ñoo ŋànk liggéey bi danañ ci ñëw léegi eh, sëñ Xaadim damay tàmbalee jataay bi ci yow xam naa nuyo bi dama koy sof ak question bi eh, mu nekk loo xam dañ koy dañ koy wéyale jàpp naa ne eh, kàngam yi fi daje tey kenn ku ci nekk yaa ngi yor lañ ci boo xam soo ko génnee nit ñi danañ ci jariñu ñi ne ci réew mi ak ñi ne ca bitim réew loolu nag jàpp naa ne lu am solo la période bii ñu yëkkati ko su demee ba la fay mel ni la sëñ Moussa Ka waxoon dafa del si ci jamono ju ñu toll fa kaabun waa hathaan wa bu seyru bañ demee la Cheikh Bamba wax yoon nen lu tax ñëpp ñëw Touba la Cheikh Bamba wax yoon nen lu tax ñëpp ñëw Touba. Mhm. dafay mel ni kon buñ demee ba ne sëñ bi nee na woote na. Mhm. kon day mel ni ñoom bañ demee rek sëñ Touba jaajoonu ci yonent bi loo xam ne nii tey moo waral ñëpp dëng mën wutali wutali wutali dëkk bu sell ba. te it lañ waxoon damay wax naa ko léegi bi may ñëw may xalaat ma ne buñ ne woon rek ñun ay jullit lañ waaye sëñ Touba moo nu waxal li yonent bi rek war na noo wëri sëñ Touba noonu. bu ne ñun ay jullit lañ. Mhm. ñu ne sëñ Touba nu waxal nii yonent bi moo nu ko melalal nii mm. war nañ koo wëri nag wax dëgg yàlla ndax ah. nun kenn xamu ci Bou Seydi kenn ka xamu ci Kamb te kenn ku ci nekk ci tagg ak way ci nga ko xame ba tey mu dugg ci soxol ngir lu mu wax xanaa war nañ ko mën a yaatal place boobu ci sëriñ bi sëñ Xaadim ba moo la bàyyee nga nuyoo euh, ginnaaw boo nuyoo damay saf ko saf question bi rek ci logiquement rek xel mënul nangu contexte bi mu ko doon bind rek ak aajo jeeg ak sóor gi mu doon sóor jànn ci jariñu ñu tey ak ëllëg sëñ Xaadim micro bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xam naa nuyoo bi moom dañ koy tàmbalee ak émission bi rek. Mhm. Eh, di lu nuyu baax sañu am ci jataay bi ak taxawaay bi sëñ Jibril eh, sëñ Abdoulaye Bichri di mhm. borom xam-xam mhm. ñu rafet lu xam-xam di ci jëriñu bu baax a baax eh, ndax xam na nu sëñ Saaliwu Euh, sàmb moom it di ay borom yi xam-xam dëgg la saa yu ne leen topp di jariñu ñoom mhm. di nuyu baax sëñ bi ñu dendal sëñ Pape Ndiaye waaw mhm. tubarkàlla mhm. waaye di nuyu boroom kër gi sëñ Bakk yi fay di nuyu suñu kóllëre bi fi nekk sëñ Ablaye Diop eh, ndongoy ndongoy mboolem ñi nga xam ñoo fi nekk yëpp waaye di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te waaye di sant bu baax ni ngeen ko waxee ku ci mel ni sëñ Xamsatu mi nga xam ne moom ci xas yi la doon yëngu sëñ Jibril wax na ko waaye mbir moom noonu lay demee rek euh, boo xoolee Serigne Touba li muy wax mbiram. Mhm. mu ni samay mbir boo koy tàmbali. Mhm. Euh, tàmbalee ko ci kaw. Mhm. xamal ni duma ci ànd. sama mbir ci suuf lay tàmbalee. te loolu euh, misaal mi mu ci joxe woon Baye Saliou ku jege woon sëñ bi la ku yéeme woon. ne ni sëñ bi da ko mos a yónnee ay mburu mburu waaw mburu ne bi mu ñëwee mu mu jënd mburu mi di ñëw. ne bi mu ñëwee ba jub sëñ bi sëñ bi ni ko Saliou mun nga mbàkke mun nga dellool mburu mi fa nga ko jëlee woon. ndax yow ba nga demee saam ya fare kaw nga jël soo demee na nga ko fa teg jël saam ya fare suuf ni ko xamaa xanaa xamul sama xanaa xamul lu jóge kaw lu ne suuf la jëm te sama mbir suuf lay jóge jëm kaw mhm. lool lool lool sëñ mbiram du yor misaalum béjjén mhm. béjjénum nag boo xoolee li dara ci bopp bi mooy gën a yaatu lu muy gën a dem di gën a sew loolu du mbirum sëñ Tuubaa xam nga luus mhm. kuddu luus kuddu luus mbirum sëñ Tuubaa noonu la mel soo tàmbalee mu sew lu muy gën a dem muy gën a lan soxla faaw nga dem baag <laughs> loolu mooy mbirum sëñ bi waaw noonu loolu day wane day wane rek nii mm-hmm. sëñam sutu mi doon wax ay mbiram sëñ mm-hmm. sëñ xam sa mm-hmm. loolu loolu laa wax ci kii ci mbir ndax man ba ma koy xam lu yàgg-yàgg la boo mu ngi këram gii ci daara xuddoos nii nga xam ne su ma musaa ñoo ànd ak benn taalibe eh, sëñ Saalou eh, sëñ Moustapha Saalou eh, muy taalibe ñu ngi koy nuyu baax Tuubaa la dëkk mais dafa nekkoon Kayaar jamono yi sax boo am na heure boo ñëwee doo ko mën a gis da ngay ñëw ñu toog ci saal lu yàgg bu ñëwee toog yow wax li ñuy wax yow dugaat ci biir ndax boobu foo ko fekk nag boobu jukki xasida bi mu ngi ci loxoom mhm. waaye nii rek lay dem sëñ Tuubaa am kenn ku ne lam sédd rek ngay def kon di nuyu sëñ Yuusu Joob it ak mhm. eh, kuréel yi nga xam ne ñoo ngànk liggéey bi yëpp mhm. waaye eh, li nga wax ci mbirum sëñ bi xam nga sëriñ bi xasida eh, xasidaam yi nga xam ne moom da ko bind nekk ab liggéey ci moom ba liggéey bi sotti kenn ku nekk ci ñun su amoon kër ñu jox ko pàkk mu liggéey ko ba kër gu rafet mhm. dana ko fonk mhm. liggéey bu sott bu nek borom dana ko fonk moy mhm. xassay xassay yi touba yi yamul da ko fonk motax ken kenn mun cee dugg def ci lu neex ndax mag ñi nekkon ak sëñ bi sax nee leen waxtu yi ñu tollu amna xassay yow nga ko man nga ci am témèr ta mag ñi nekkon ak bi xassay yu dund nak ak touba ba joge fi mus na kon bi dafa fonk liggéeyam waaye boo xoolee sëñ bi ni ñu koy indee misaalam ci wàllu xas li ni mu doon liggéeyee ni mu ko doon bindee ak ni mu doon doxalee da koy indi ci wàllu misaalum alxuraanu karim mhm. sëñ bi noonu la koy ràbbalee loolu nag ndax buñ la indilee tey ci sëriñ bi la mus a gisee koo xam ni dafa tënk dundug yonent bi sallallahu alayhi ci ñaari bayit mhm. loolu mu ngi ci mawaahibu mhm. dem na sax ba tënkaat ki ci wenn bayit ci raay ya loolu dañ ci ñëw nga xam ne ràbbaleeg alxuraan laay wax in raama ilman aw raama ilman in raama ilman aw raama gunman aw raama zulman baaqi liqaay fa daaka yuhda wa daaka yuhda lahu wayruda taabi soqaay fi na loolu boo ko boo tojee bayit wi sëñ bi bayit wi da ngay firi baat ci kaw ci bayit wu jëkk yi mu firi ko ci ci bayit wu mujj wi loolu alxuraan day ràbbale noonu kutiba aleykum اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه بيمي واخ لولو غيسغا بيمي واخ تي وصيه دا فا اندي كتب نايو فايل موي نيو تا موي وصيه تي سوف كتب عليكم الوصيه اذا حضر احدكم الموت غيسغا دا فاي دا فا جيتال فيل جي نعم. دم موجي دم دم جيتال دا اندي فيل جي جيتال مفعول به جي تك تي فايل جي kon ku ne xam na ni fiil faayil mafoolu mbii mo ci topp intaraka ahadukum al maut door a indi nag benn jumla bo xamni jumla shart la mooy intaraka xayran gis nga bokuy firi da nga na kutiba xam nga wax ji nim tagalo kutiba alaykum iza hadara ahadukum mawtu intaraka xayran al wasiya wax ji nim tagalo pour nga pour mo leer ci yow kutiba alaykum al wasiya waralef na ci yéen al wasiya muy dénkaan mu ni isa xadara al mawtu ahadakum kenn ku ne ci yéen bu leen dee dëkkalee may nañ la nga def wasiya bu fekkente nag charte bi mu indi sart ba mooy in googu in taraka xayran bu bàyyee alal ju bari xayran jooju firiwu yu alal ju bari lay firi noonu alxuraan ràbbalee noonu moo am ci bayit yooyu ma la wax إن رام علما أو رام غلما أو رام ظلما باقي اللقاء فذاك يهدى وذاك يهدى لو ويهدى صابر إن رام علما فذاك يهدى gis nga aw raama xulman waddaaka yuhda dégg nga aw raama zulman ba waddaaka yurda gis nga kon ni mu andilee ràbbale ñaari bayit yooyu tënk na dundu yonent bi ci ñaari bayit ndax dundu yonent bi génn loolu waaye boo demee ci raay da ko tënk ci wenn bayit loolu it daf ko dina ñëw ci alxuraan. waaw alxuraan dina waxe noonu. su suñu xoolee xaa saar yi gën a gàtt ci alxuraan. soo jëlee sootu lixlaas ca la bokk. sootu nasimu mu jaa ca la bokk. maanaam euh, innaa a'taynaakal ca la bokk. wal asri ca la bokk. yaa ngi dégg. kon saar yooyu ma la wax saar yi gën a gàtt nañ jël wal asri. alxuraan bi muy wax ni wal asri innal insaana la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri ñetti aaya la wal asri rek aaya la ñu ni yàlla dani giñ naa ci tàkkusaan ñu ni giñ naa ci jamono ñu ni dani giñ naa ci jamono ji yonent bi doon dund jamono jooju laa doon giñ waaw waaye giñu ma ci yeneen jamono inna insaan la fi xusrin muy ñaari aaya nit mu ngi ci perte léegi nañ jël aaya bu mujj bi illa alladina amanu wa amilu salihat watawaasaw bil xaq watawaasaw nee naa nee naa leen aaye boobu bu fekkoon loolu rek mooy alxuraan alxuraan doy na sëkk. aaye boobu aaye boobu laa wax. alxuraan gis nga da lay surtout Fatiha. ba Baqara wàcc ba ci naafi. saar woowu mën a wax wala asri. soo jëlee ñaari aaye bàyyi ko. bu mu bokk sax ci alxuraan bu la neexee. aaye bu mujj bi illal ladina amanu wa amilu salihaat watawaasaw bil xaq watawaasaw sabri lépp daje na ci. kon yàlla tënk na ci lépp. ndax illal ladina amanu ngëm dugg na. ak tawxiid muy benn wa amilu saalihaat jëf yu baax yëpp dugg na ci kon sharia dugg na wa tawaasaw bil xaq xaq dugg na wa tawaasaw bi sabri nii jëflanteeg nit ñi ci àdduna dugg na jeex na loolu mooy alxuraan di kon ngëm yàlla ndax iman islam ihsaan xoola aaya boobu rek sëñ saalu maanaam bu mujj bi rek nga bàyyi ñaari aaya yi te bokk na saar yu gën a gàtt ci alxuraan mhm. loolu rek doy na yàlla tënk na ci alxuraan lépp dugg na Mhm. nan dem ci dund ni sëñ bi tënkalee loolu mhm. soo demee ci raay yi dama ne ñaari bay la sëñ Tuubaa wax tënk ci dund yonent bi nga dem ci raay mu tënk mu tënk wenn bayit kiltaa yadayhi laa saayun tulaazimuhu batalun wa bahlun wa basun liman laa noo mën jaaroo jeex na sëñ yonent bi saa sallam ñaar doon jëflanteel maam dafa bi mu nekkee màkka ay dë la ak naafiq loolu faaw ñu bàyyi xel ci yonent bi saa sallam diir bi mu nekkee màkk ba ni mu fa jógee amul am naafeq bu yont bi dëkkal ñaar rek la dëkkal ab julit akub yéefar waaw jeex na bi mu ñëwee Madinatu Munawara ñii la dëkkaloon ab julit akum naafeq la dëkkaloon kon naafeq amul woon màkk naafeq Madina la am léegi nag boo jëlee naafeq yi jël yéefar yi boole leen benn barab ñoo am ci yonent bi salaa salaam ndax gëmuñu ko toppuñu ko te dañ ko doon yàqal te yonent bi ñaar loon jëflanteel ki nga xam da koo topp la mu doon jëflanteeg moom mooy saxaaba yi muy jullit yi ak ki nga xam topp ko la mu doon jëflanteeg moom loolu mooy ak dundam moom la Sëriñ Tuubaa tënk ci bayit woowu noonu yà alxuraan tënke wala asri bàyyi ñaare aay yëpp bu la neex bañ koo wax jël aay mujj mu tënk ci alxuraan jëpp tënk ci àdduna jëpp ba mu jeex noonu la suñ tubaar mel ci yonent bi tënk ko ci wenn bayit moo tax benn naar nee na xawma ku mu jaaxalul day waaye jaaxal na tàggkat yi ñu ne ko lu tax mu ni ndax ci leen mos a gise ci nit ku bind tënk dund yonent bi ci wenn béy ci sëñ Tuubaa leen ko mos a gise kon loolu laa lay wax kon bindu sëñ Tuubaa bala nga koy bala bala ngay xam kii kiyam dëgg-dëgg nga xóot ci alxuraan subaa yi ngay xam sëñ Tuubaa ni muy tàqalee mbiram ci digganteem ak alxuraan ak digganteem ak suñu borom te beneen bi nag jëf junu nangu la nag mhm. jëf junu nangu nag moo neex a ñaane fi ñaam dëgg la jërëjëf sëñ Xaadim euh, ñu sant ko bu baax a baax euh, yaakaar naa ubbi bi rek man na sëkk euh, sëñ Jibril ma bàyyi la nga dugal nga dugal sëñ Saaliw digal sëñ Saaliw wala sëñ Ablaay rek mhm. Mhm. jërëjëf jërëjëf sëñ sëñ Xaadim ubbi nga ubbi nga lu yaatu te laytaay nga jataay bi laytaay bu am solo xam naa sëñ am balaa ñuy ñëw rek ni ma ko waxee woon ci tamit ci sëñ sa Mm-hmm. noonu la valable ci sëñ Yuusu mm-hmm. wala boog noonu la valable sax ci kuréelu isbu tarxiya ñëpp rek mm-hmm. waaw ndax ñoom it wax dëgg yàlla liggéey nañ bu baax ci xasida yi si di ko ñoŋal ci delloo si daaju mag yi si di ko jàng ndax wax dëgg yàlla yoonu murit bi bu amutoon bu tarxiya maanaam dina mel ne ataaya ju amul naanaa <laughs> kon nag ñoo leen di ndokkeel ñoom ci seen taxawaay ak nii ñu def xasida gi waaye lépp rek sëñ Muntaxa la la nii mu leen boolee nii mu jëlee ndax ni ñaan ñi ñëpp ñu ngi liggéey ci xasida mhm. mu jël leen boole leen ni leen ànd leen defar defar defar defar bis bi mhm. di sant yi tamit nag gi mu am mhm. ndax wax dëgg yàlla ñu demoo na ngi ñëw ñu loolu lépp yi tamit ku ne xam nañ sëñ Muntaxa li ma ko waxee woon ci c'est la kon euh, na ko suñu borom borom jàppale ñoom ñu ngi leen di ziara waa Hizbut Tarqiyyah communauté scientifique beeg ñoom waaye dama xamul ndax sëñ Ablaye laa ñëw wala sëñ Saliou sëñ ah? waaw waaye naa leen naa leen jàkkaarloo ñu ñu def ko nii. ndax daa dend ak sëñ sëñ sëñ sëñ mhm. man fi may waxee mooy daanaka li ma tàmbalee sëñ sëñ Saliou yi fan la ko sëñ Tuubaa tegoon ak jëfa jëfee xaside yi ak warmaal kook jëfandikoo ko lan la mën a def ci taalibe yi. auzu billaahi mina shaytaani alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayiduna muhammadin wa ala ngi sant yàlla di julli ci sayiduna muhammad di feddali sunu kóoruteef ci Cheikh Ahmadou ngi balu xàq ñëpp di leen baal di ñaan yàlla boole nu jéggal di ñaanal Cheikh Mouhamadul yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ko ñaanal sëñ Cheikh jëmb képp kuy sol sa dara te tax laa jóg mhm. Euh, di ziyaara bu baax mboolem koo xam ne yaa ngi topp jotaay yi waaye di jiital ci ziyaara bi ki sëriñ bi jiital ci liggéey bi muy sëriñ Xamsatu Mbàkke moom sëriñ Suwaybu ni ko sëñ ci waxee léegi ak sëñ Amidun ak sëñ Xaadim noonu rek la demee ba mu ci da cee newoon rek te yàlla tax mu japp xasida yi borom Tuubaa yi mhm. tek ko fi mu ko tek te mhm. ko dundale ni mu koy dundale te sóolul woon len lu ko ci fekk serigne bi nag boo demee ca tar te muqaddimat euh, ndax joxe day haaji amna fu mu wax ni man al baba wala jë wala <laughs> waaw wala jë wala waaw suñu xam satu mbàkke mhm. nga japp ci kaw suñu xam satu mën naa firi ndax ba muy ne ci xasida yi njortuloon ni la maam Thierno Ibra Faty waxoon nii damaa damaa li ma jàppoon ci sama bopp mooy satal ak borom Tuubaa geeg deram bi du yàgg ba ma dem du yàgg ba ma am ci ku ma aw. Mm-hmm. waaw kon koo ba muy ànd ak sëñ bi yàllaa taxoon. Mm-hmm. sëñ sa Todd bi muy engagé wu ci xasida yi. Mm-hmm. du woon lii xew tey. xaaru ci woon lii. da cee da wu woon rek. te sëriñ Tuubaa tax. moo ko ci may lii ko ci fekk. waaw. Euh, léeg-léeg nag ma wax ko euh, bu nit di jëf nga toog di ko xool bis buñ koy gërëm bàyyi bàyyil ñu gërëm ko rek waaw noonu la demee ci sañ am sax xasida yi mm-hmm. xasida yi nag euh, du wax ay Saliou Samb am na parole boo xamante se nii mm-hmm. parole bu oyof la mooy parole Saliou Samb waaye Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ne lu waay di def ci xasida mm-hmm. sëñ xam satu nga ciy dimbali te bi mu koy wax mooy borom Touba doy na doy na loolu suñu xam ne loolu doy na ko sëkk mhm. sëkk sëkk lu mu mës a sonn ci xasida yi mhm. baat boobu suñ tubaa seeral ko doy na mhm. lu waaye di sonn ci xasi di def ci xasida yi xam satu nga si dimbali nuy ziyaara Cheikh Mouhamadul Basir moom sëñ Abdou Khadir bu baax a baax moom it ci liggéey bi waaye di ci ziyaara sëñ Youssou Diop ak mbooleem kuréelu Hizbu Tarqiya ni ngeen ko waxee rek noonu la demee ñoom duñu ñu mën a ñàkk ci yoon bi Hizbu Tarqiya ñoo ñàkk ci yoonu murit seenu taxawaay daa mel ni fàgguteef leen goog sëñ Tuubaa moo ko fàggu teg leen ci wet gi mm-hmm. waaw ku dem ba yegg ci ñoom rek te xam dara ci sëriñ bi di nga xam ne ñii duñ ñu mën a ñàkk ci yoon mm-hmm. sëñ bi nag ñi mu àndaloon sax ci bi nga xam ni moo ngi fii nekk mm-hmm. ñu leen di tudde seex ñii ñu leen di tuddee rakk kenn ku nekk bu option bi mu yor da ngay xam ni ki mënut a ñàkk ci sëriñ bi waaw sëñ Tuubaa noonu la ko yàlla defalee ay kon ñoo ngi leen di ziyaara bu baax. di ci ziyaara sëñ Xasan Mbuub. di la nuyu bu baax sëñ Amidou. di nuyu sëñ Jibril. Mhm. di nuyu sëñ Xaadim Njaay Kayaar mu baax mi di ko mhm. di ko sant tey rafetlu kàddu yi. Mhm. E, yi muy wax ci ñun ci moom rek la ne. ñun ñii ñoo ngi jariñu ci moom bu baax a baax. di ko ñaanal yàlla mu guddal fanam te wéral ko. sëñ Abdoulahi Diop Bisri moom it. E, noonu ma ko waxee ci sëñ Xaadim noonu la valable ci moom ñoo ngi jariñu ci ñoom bu baax a baax. ndax ñu yee mhm. dongo yi lañ mhm. di leen dimbali ci sëriñ bi mhm. ak œuvre yi sëriñ bi li nga ko waxee ci émission bi di kenn du sëriñ bi rek ni mu ciy def di ko def ci xasida wax dëgg yàlla képp ku bëgg sëriñ bi bëgg xasida yi moom ko ci bàyyi xel yàlla yàlla gudd fanam nuyu sëriñ Pape Ndiaye Kara mi moom it bu baax di ko ñaanal yàlla mu yokk ko waaye di fi jaar di nuyu sangam ba Cheikh Cheikh Cheikh Ahmadou Ousmane général te ñaan yàlla mu yàggal taxawaayam waaw sëñ sëñ ji bi xasida yi moom. Uh-huh. Ah, nu ne mën nañ ko koo tudde man noo wax ni mooy sëriñ. man noo wax ni mooy jubluk sëriñ bi. Uh-huh. maam Cheikh Ibra Fall sax wax nañ dafa waxoon ni mooy tànki sëriñ bi de. Uh-huh. te boo toppee tànk te dëppoo da nga mës a gis jëmm. wax nañ ne am na ko ma a yor xasida ñëw ci maam Cheikh ra mu laaj ko ko mu jox ko ko. wax nañ ni mu ubbi xool. tëjaat fóon ko delloo ko ko ni ko na nga ko fonk ndax mook alxuraan a bokk fu nu bawoo te moo fa mujj a bawoo aktubu naaxilan min lawxihi alxafiz aktubu naaxilan min lawxihi wa min qalamihi wa fi xurufi lam amin maam Seex Faal la ko wax ci wolof waaye Sëriñ Tuubaa wax na ko waxal na ko boppam nee na falaa falaa toxale ca alluway maxfuus laa toxale te la quraanul majidun fi lawxin mahfuzin mu ne aktub naa naaxilan min lawhil xafiis kon xasida yi foofa la bawoo comme foofa la bawoo nag ki wax ni falaa toxale su waxee ni lubbi mu nawarun bi nuuril wax yi warees na ko mën a gëm ndax foofa la fa bawoo woon di ñëw ci yonent bi wax yu la tuddoon te wax yu yonent lañ koy def wala yu dañ koy ilham waye ki wax ni la alluway maxfuus la toxale mo wax ni lu bi sama dënn bi mu nawarun bi nuril wahyi yàlla ko léralé ci réru ci léru wahyu wax ni wa khad li khayru ulumil mox yi sans borom indil na ma ngeen ci xam-xam manam maanaam matal na ma matal na ma ngeen ci xam-xam la ko jiitu sax mooy isa katabton tazza arsul baqi sumay bind aras day baj baji day yëngu wax sa baxat muy sabal malaa ikut tibaax yi mhm. waaw koo xam ni sa xalima rek mbooleem yiw yi mhm. sa xalima day taxaw seen daraja buñ tegee mbooleem yiw yi mhm. ci balance teg sa xalima ci balance sa xalima wat mbaamu tolloog ñoom daraja iji alxilaami yaa sakuru qaaima maqaama jumlatil xuyuuri daaima la wax ku sa xalima di toll di peser mbooleem yiw yi mbooleem lu baax yi bu bu sa xalima di poser booy bind mu war a mën a yëngal aras kon isa katab tontas arsul baax yi lu war a mën a nekk la ndax lee moo koy waral na doolay xalima ji toll na doolay daaja toll mhm. jaxal mi daal di kadimaay suada mhm. suñu tubaab wax na ni sama daaj yi na nga ko def mu mel ni dereeti ñi ñi ñi daanu ci xare mhm. te ñu wax ni ñooña seen puuritu gémmiñ ñi pas rek moo ëpp doole wëlli moom mu wax ni daaxam ji na toll ni seen deret ya mhm. kon xasida leneen la loo xam ni mhm. ci beneen programme la nekk waaye su fekkee ni wax yu yonent bi lañ ko daan def yonent lañ ko daan def yàlla waxoon yonent bi ci jamono bi mu koy wax ni ko sa ndijoor bu ci bind sama alxuraan ji wala taxut bi yaminika sa ndijoor bi bu ci bind sama alxuraan ji parce que jamonoy poésie ci la yonent bi ñëwoon poète dafa doxoon booba ñépp mën a wax alxuraan xëy war a ñëw bi alxuraan xëyee war a ñëw ki ñu ko war a jaarale ci moom su mënee bind wala mu mën a liir dañuy jàpp ni. moo ko bind. moo ko créé. Mm-hmm. parce que comme jamonoy poète la nekk kenn ku ne mën a wax moom yàlla day waajal kook mënta bind mënta liir. Mm-hmm. nabiil mm-hmm. ummi la waajal. wàcce ci moom alxuraan ji ba pare ni ko bul mën a bind ci sa ndeyjoor bi wala te xurtu xu bi yaminika. Euh, suñu borom mën programme. alxuraan ñëw. ñoom ñu nga xam ni ay poète lañu ñoom ñëpp bu ñu dajale woon seen xel yi mën noo génne lu benn aaya. sëñ Tuubaa ko wax tilkal xawaariqu ma zalat tuayiduhu is lam yazal qilluhu yati bil ayaati xata ata bi kitaabin ajazal bu loxa ba mu indi fi téere boo xam ni lottal na borom balaaxee ajazal bu loxa wakkal la am mislihi lottu na ci lu mel ni moom ahlul fasaxaati ñi mën a wax ñépp suñ daje woon wax wax wax ba dajale mënuñoo génne lu mel ni benn ayib alquran yàlla ni ko bul mën a bind ci sa ndijoor bi ñu toog junniy at ak ñetti téeméer kii bind xasida yi ñëw ni yami ni alayha day nu xattin xawaari dan wala taqutu bi yaminika bul mën a bind ci sa ndijoor bi ki ni yami nii sama ndijoor bi alayha da cee gàllu day nu xattin borub mbind waxul dama war a bind waaw waxul damaa war a bind waxul li dani bor day nu fuñ ko lebe woon kon la yoneen ba wayul woon te xam ni bindatil xaraf te sut ñëpp loolaa tax mu wayloo Serigne Touba lool la Baye Moussa waxoon ci mu xaddimaatu wala fam mooy wala taqutuhu bi yaminika ak yamini alayha daynu xattin xawaaridan mhm. bi xidmati xilli zil madinati zahadi mhm. xaside yi nag li nga wax sañ jëli ni nu ciy jariñoo koo xam ni léppam njariñ la nu nuy jariñoo ci mbiram yomb na fi mu toll jëf ju seytaane génn ñu gaaw koo mën a jariñoo maanaam gépp jaamu yàlla gu seytaane génn mhm. jariñoo ko yomb dëgg la te moom moo wax ni haraba min si'riya iblisul marid sama way yi buñ koy jàng iblis day daw haraba min si'riya iblisul marid mhm. wa bi qasaa'idi yahdiyal murid dégg nga mhm. bu fekkee ni ñoo ngi jàng xasida yi bu iblis dawee xasaa yi yooyu ñuy jàng day daal di jubbanti ki mu nekk parce que bu fi iblis nekkatul rek jub yomb mhm. mu wax feneen ni iblisu farra shakiya ila siwaaya baakiya iblis day day day daw farra di jooy di jàmbat liisu farra shaakiya ilaa siwaay jëm ci kudul man baakiya di jooy lu kañ mu ne mu sarraqati ku la xaruurin fati kon nu nuy jaar jariñu xasida yi yomb na bi si gën a yomb mooy jàng te sellal bu fi iblis nekkul nga mën a jàng te sellal te boo jàngee te sellal jariñu ndax wajaal tawaalifiya bil muxtaari zunnata kulli xaariin annaari yàlla maa ngi lay ñaan man Cheikh Ahmadou Bamba nga def sama taalif yi ci dara daraje Sayyiduna Muhammad mi nga tànn mu doon pakk ci sawara ci képp ku jàng kon lim mën a njëkk a def moom xasida mooy teelaa dem sawara tere la dem sawara la khassida njëkk mën def luy dem sawara jëf ju baax ju jot ju yegg baat bi gën ci baat yi yonent bi neena na ku wax te selal ko danga dem aljana muy la ilaha illallah mu ila tawali fi fii yaxudullaahu asraara ilaha illallahu ndekete da ngay yor khassida di jang waye waxo baatu la ilaha illallah mais wax nga ko ci khassida ngay jang ndax ci la yalla womat motum la ilaha illallah dugal ko ci te ku wax la ilaha illallah te mu sel nga dem aljana kon kay euh, aljana ju adu ñu koy waxati laaxira ju jag lanu njëkk xasida njëkk a indil laaxira ju jak ëllëg ju jak waaw mhm. waaw ëllëg ju jag mhm. lanu xasida mhm. njëkk a indil fii muy jagee fi àddunaat mu wax nu ni sama xasida yi dinatah tax mbooleem xéewal yi di bàyyi ko fu nekk te du ngeen sonu yeen ñi koy di leen ñëwal يقود لمنافع البلدان دينغ وحبي يقود لي منافع البلدان بولم نجاري نجاري ني جوكي كي ينن ريوي دينا دينا دينا سمبرتل جيم سي مان مان احمد بامبا يقود لي منافع البلدان قديه بلا اذن من الابدان قطية بلا اذن من الابدان يقود لي منافع البلدان قطية بلا اذن من الابدان دينغ njariñ yëpp dina ñëw sëñ Tuubaa nee na bilaa azin minal daani benn coono benn lor du am ci seen yaram fi mu toll kuy jàng xasida koo xam ne jàng xasida rek ay mbiram da gis ay aajoom di faju te doo ko fekk muy sonn waaw mooy xattiya bilaa azin minal abdaani sa yaram du yëg benn lor ba pare njariñ yëpp di ñëw mën a fenal bul daani fu ne xéewal di fa bàyyi ko di ñëw loolu nañ ko natt ci Touba Mbacké Touba Mbacké nga nga xam ni fal xasida yi dëkk xéewal ya ñëw du xéewal yu ànd akub coono mm-hmm. kon xam naa ba ci kanam Eh, ubbi nga bunt bu rëy rëy rëy rëy eh, macha allah ndax eh, fi nga daaneelee dafa ubbi buntu waxtaan bi mhm. xam naa war nga noo ñëwal sax ndax sëñ Touba dugg nga yër nu nga tuuti rek da nga da ngaa yërndu da ngaa yërndu ma siyaar rek génnaat waaye dinaa la relancer même question bi ci li gars yi doon nettali ci ay xawaarix ci histoire ak histoire sëñ Touba da ko ràbbe ci biir ay xasidaam ci yonent bu nekk alayhimu salaam euh, fa ñu fa ñu kalee fa leen yàlla kàllarte ci barkeb yonent bi alayhi salaatu sant boobu ñëwul loolu lépp suñ tubaa rek ko indi ñu ko tëggal wayu neex mooy li wax léegi sëñ Ablaye ci yow laay ñëw ci suñu déggoon sax ñu ne sëñ tubaa Nigéria la dëkk te teñ dégg mu wax li mu wax yonent bi sax war nañ koo wëri ñun bu dee ay jullit lañ parce que tey am na ñooñ way jël nañ seeni i way valoriser ko fii ci réew mi te koo laajoon seen i fu mu jógee waaye bëgg gënu bëgg yonent bi moo moonu may lan way mu neex nu ba tax ñu mu dugg ñu chaque jour saa saa nga gis woykat bu jël sax ab jàngkat bu jël jàng way woo xam ko ko way sax dëkkul ci réew mi waaye daa neex dama dem euh, madinatul munawwara ànd ak sëñ Abdou Samad mu sëriñ Chouaïb ñu gis fu bu sayri bind ñeenti bay yu neex mu ne ma foto ko lii neex na trop loolu la yëg-yëgu ab julit war a am ci ndeli sëriñ Tuubaa waaye tey sëñ Ablaay bu ñëwee ci mm-hmm. man na bil ilmi wal muna ma baqaa in billadi laysa yantami lin si laa bi li nga xam ne ni yàlla fàggul na ko ci loo xam ne dootul dañ nag dootul dañ est-ce que du tey moo poussé tey contexte boobu moo poussé tey Cheikh Mamadou taxaa ci mu xalaat ni ci mu jàpp ni li sëriñ li li sëriñ bi def ci xasida yi ci loolu mooy li am sax amul fenn fokk suñu borom làqal biram ndax moom moo ne mooy sama kéemtaan est-ce que lim bind na sëñ Ablaay logique logique may na ko ko ak temps temps bu doy ak jot doy ak ñu ko ci jàppale. mu ngi jiital sunu kàddu ci sant yàlla sunu borom. di julli ci yanant bi alayhi salaatu wasalaam di santati Serigne Touba. di ñaanal sëñ mun Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér. di ko ñaanal sunu wasila. ñun dañ cee am mbégte ñaari yoon. ndax ki mu joxoñ jiital ko ci liggéeyu xasaayid yi. Mhm. Euh, fekk na ñun moom la ñu yaakaar àdduna ak àllaaxira jébbal ci moom. muy sunu bunt ci sëñ Touba di xam Hamza mu sëriñ Chouaib yàlla na ko yàlla dolli wér dolli ko kàttan euh, li ngeen wax a ci nekk moom dafa gimmi rek nekk ci liggéeyu xasaayid yi moom mu sa nekk liggéeyam alquran xasida loolu rek lañ ko xamal di ko bind di ko jàngale di ko móol di neexal ña koy ña cay nekk ñi ko wër di jàng xasaayid yi sëñ Touba muy jëndi daamar di leen ko neexale mm-hmm. kon du tey jii lii nu ko jiital dafa jara xam ni lu jiitu moom la doon liggéeyal xasaayid yi ba tey sëriñ Tuubaa mi nga xam mooy sëñ mun taxa ni képp kuy jëf ci xasaayid yi moom nga ciy jàppale ndax da ciy am xaas kon nu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di nuyu Cheikh Basiru Abdul Qadir mu yor kàddu yoon wi di ko ñaanal mucc ak fan wu gudd di nuyu sëñ Yuusu Jóob mu jiite is Hizbut Tarqiyyah am ci taxawaay bu am solo ginnaaw bi nga xamee ni jàmbaar ja dëddu na sëñ aatu jaañ yàlla na ko yàlla yokk leer ak yërmande sëñ yuusu yanu ko yanu bu rafet nu ngi koy ndokkeel ak mboolem ñi ci ginnaawam di ko jàppale nuyu bu baax a baax a baax sunu soppe yi nga xam ni moom la ñu séqal plateau bi sëñ xaadim njaay kayaar ci xam-xam bu rafet bi ak yar gi ak teggin gi ak sell gi nit ku baax la koo xam ne lii may wax duma ci jéppi ndax xam na ni dëgg la jaxasoo nanu xam naa ko yàgg na nag ca rajo lañ jaxasoo woon muy nit ku baax koo xam ni lii muy jàngale noonu lay dundee nit ku sell la boroom xam-xam la bu am teggin mhm. ku yaruta fees dell mhm. kon bu waxee kàddoom bi rafet yi jëmee ci nun daf nuy soññ rek mhm. waaye yow sag nga ci yoonu murit sakk nga ci lislaam yàlla na yàgg lool di nuyu sëriñ Saalix sàmb di ko ñaanal mucc ak fan wu gudd muy jàmbaar ci yoon wi am na léegi ku may gis ci commentaire yi mu ne namoon nan ko murit yee ko bëgg ngir waxtaanam ngir njàmbaaram ngir gëstoom dëgg la waaye ngir fitam ndax sëñ Tuubaa soo ci wax da ngay mm-hmm. am fit mm-hmm. doo dellu ginnaaw kon yàlla ko yàlla sàmm ci barke sëñ Abdul Karim amiin te defal ko tawféex ci biir ak ci biti ci barke xasaayid yi amiin amiin di nuyu sunu soppe bëri sëñ Pape Ndiaye di ko yóbbante nuyoo ci généralu Serigne Touba sëñ Modou Kara sëñ mm-hmm. Ahmadou Kara Mbacke Noreyni di la sant sëñ Hamidou sant sëñ Jibril Ndaw di leen béggee bu baax ci émission bii di diiwaan diiwaan ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen bége euh, fas yéene ñëw rek ci sa laaj bi mhm. waa nuyu Pape seex Bey jinne caméraman yi waaw <laughs> moo ñuy caméra fas yéene ñëw rek ndax sunu daje bi dafa am lu ko yëkkati muy waajal la onze bi nekk ci sunu kanam mhm. tey ndigalu sëriñ Touba. Mhm. te mu digal nu li gën ci nun moo nu digal li gën ci nun lana gën ci nun mooy jàng xasaayidam yi ndax yi xasaayid yi làmboota boole ko sëñ xaadim dafa ubbi léegi wax ju am solo te ñu bëri mën na leen a raw muy sëñ Tuubaa dafa gën a xam ñëpp alquran dafa gën a dégg ñëpp alquran déggin googu mu gën a dégg alquran nag moo tax buy tànq ci alquran dina ko sottil ci ay xasaayid faaw xasidaam nekk mujiza waaw mu nekk kéemtaan bu kenn dul mën a gis feneen ci sëñ Tuubaa di mën a gise ndax fa muy moo ñu ko gën a dégg bu ko tànqee ba noppi li muy togg tamit faaw mu am cafka goo xam ni ku ko musul du ko xam te loolu xasida rek moo ko man ndax sëñ Tuubaa gën gee dégg alxuraan bëgg gi yanantu bi alayhi salaatu salaam day feeñ ci mbindam gën gee xam yanantu bi ndax bi sëñ Tuubaa ko gën a xam ñëpp loolu moo tax mbindum sëñ bi du niroog mbindu keneen xorom si nga ciy fekk cafka gi nga ciy fekk dégg gi nga ciy fekk nuróo gi muy nuróo ko waxi sunu boroom moom rek a ko man dinaa ci indi firnde ci dafa am bis mu wax sëñ Amzatu Jaxate radiyallahu taala anhuma mu ni ko Hamzatu mu ni ko Mbàkke mu ni ko sóoratu Zumar fële aaya bële wasiqa allazina kafaru ila jahannama zumaran xataa iza jaahuha futihat abwaabuha wa qaala lahum xasanatuha alam yaatikum rusulun minkum yatluuna aleykum ayaati rabbikum wa yunzirunakum liqaa yawmikum haza xaaloo bale walakin xaqat kalimatul azab alal kafirin mu wax ko aaya boobu ni ko lu tax foofu waaw ji duggul dégg nga xam nga bi mu ne wasiqa alladina kafaru ilaa jahannama zumaran xataa isa jaahuha futtihat abwaabuha am nga foofu amul waaw wax waxuloo futtihat da di ko futtihat rek abwaabuha wa xaala lahum xasanatuha nga dem tuuti ñaareel bi aaya bi ci topp mu ni wasiqa lazina taxaw rabbuhum ilal jannati zumaran xataa isa jaahuha wa futtihat abwaabuha wa qaala lahum xasanatuha salaamun aleykum tibtum fatxuluha xaalidin sëñ Tuubaa déggam alxuraan mu ne ko aaya bii boo ko seetee waaw ji néwu fi aaya ji waaw jee fi nekk lana ko waral sëñ Amsatu Jaxate ni ko delloo nañ la ko xamuñu ci dara yow rekk a xam alxuraan mu ni ko ndax yàlla dafa jéppi yéefar yi ñu koy moy da leen a ngi bokkaale yàlla da leen a yooyu nag buñ leen chaîné ba jëmee leen ma safara bu nu agsee ba war a tàbbi ci juróom-ñaari buntu safara yi mer gi leen safara mere te jéppi leen motax amul waw futti xat ab waabu rek buntu yaay gaaw ni welbet uppi ko seen bop dugal dugal way way tooñ ya lii moo tax waaw fofa la tax nak benen aya ba wasiqa alladina euh, taxaw rabbahum ilal jannati zumaran ña nga xam dañu ragal seen borom buñ leen euh, defalee kuréel jëm aljana suñu ñëwee wa futti xat waaw bi dugg wa futti xat ab waabu day melni kon waw bobu waw buy préparer ñoña la li ko waral mooy wa nazana ma fi sudurihim min xillin ixwaanan wa ala sururin mutaqabilin alxuraan la mu waxoon dañuy jël seen xol yi li ci waroon nekk ay kiñaan bëgg daraja ndax aljana nit mënu caa dëkk di iñaan moo tax nag bu ñu waree dugg àjjana faaw kon wafutixat bi li ko indi waaw bi yeexal leen ñoom ñii dugg àjjana dañ leen di jaaral ci dexu kaw sara fóotaat leen di leen préparer. Mhm. di leen toppatoo. Mhm. defar seen yaram ngénn yi indi keñaan ci xol ak yëpp ba ñu mhm. yàlla doo leen tàbbal ci juróom-ñetti buntu àjjana ya muy waawu samaan ya jooju. kon da ngay xam ni sëñ Touba képp dégg alxuraan. man ngaa jàng ba jeexal téere yi mi boo ko firee bu la ko firilee du bokk. am na bis mu ni mag ñi. nan ngeen di firee waf'alul xayra la'alakum tuflihun ci ko sootul xaj. na ngeen di jëf aw yiw. ngir man naa am ngeen texee ca noonu arabisant yëpp noonu lañ ko mën a firee mu ne ñan koy jëf ñu ni cell mu ni bind leen waf alo ñu bind waf alo mu ne ñaata xuróof la ñu ni ko juróom-ñaari mu ni bind leen alxayra ñu bind ko mu ne ñaata xuróof la ñu ni ko juróomi xuróof mu ne yàlla dañu seen juróom-ñaari cër yi na sax ci juróomi ponk lislaam yi ba dee fekk leen ki ngeen door a tabbi gis nga kon dégginu alxuraanu sëñ Tuubaa kenn amu ko mm-hmm. maa indakum yanfadu wa maa indallaahi baax mm-hmm. halo arabi boo mana tegal mu jang arab ba jeexal téré yëpp da wax rek yalla nee li ci da fay jeex li ci man yalla moy dess biko mag ni firé non seigne touba ni firi ka gat ta daa tani accam mag mu tolni yalla dina sak ay jaamam jox leen seen xéewal yi nu am yépp yalla leen ko may war leena ray ëlëk jaam bi di doye di mënut dara nu ko yàllay sakke ba nopp may ko xéewal naan ko yow xéewal yi mala may day jeex man yima ya yor moy dess di comparer bopam ak jaamam loolu yéen wut maanaam dafa wax ni maa indakum yan fadu maa indakum mooy la ngeen denc ci kër yi di ko korkoral ak ci banque yi di ko sakkanal yan fadu day jeex ndax su ngeen deewee tey tey balaa ngoon amatu leen ci benn wàll mhm. seeni njaboot a koy doon kon maa indakum yan fadu mhm. wa maa indallaahi baax yi nag mooy lu baax li ngeen jëf muy ay tuyaaba mu ngi jiitu ci seen bàmmeel di leen xaar ci seen barzaq mhm. kooka du jeex mukk aji xaar lay doon kon sëñ Touba dégg gi mu gënoon dégg nit ñi alxuraan laa bëggoon a préciser. Mhm. moo tax mu gën a mën a rafet rafetle bind ñëpp gën koo mën a rafetle ku mu doon. Mhm. te gën a dégg ñëpp. Mhm. nga laaj ma léegi ndax li mu bind. Euh, yelloon na. logique na logique na mënta logique at yi at yi ni dafa gàtt. mbind mi barkeel mbind mi barkeel bari. yaatu lépp xaj te mu bind ci fànn yëpp. te amul woon temps bi te boole na ko ibadaatam yëpp. Mm. boole ko defari nit nag lu mat a xam la. xam nga làmmeñu arab wax naa la alxuraan gën jee dégg làmmeñu arab it da koo gën a jekku ñëpp ndax bu ñu fàtte ni moom yanantu bee ko tànn raama rasulullahi min ilahi kaw ni xadimuhu wa abdallahi kon yanantu bee tànn sëñ Tuubaa ngir muy xaadimam waaw yanantu bi nag bu la tànnee faaw làmmeñu yanantu bi nga gën koo jekku ñëpp moo tax arab ni ko sëñ Tuubaa jekkoo amul ku njëkk amul ku mujj ndax nee na làmmeñu arab lañ ma wommatal jox ma ko ma ciy def lu ci kenn mënu mbindam tam fa mu koy jëlee kenn jotewu fa ndax moo wax ni lawhul mahfuz lay jëlee mbindam wax nga ko léegi aktubu naaqilan min allawhi wa min xalamihi wa fi xurufi lam amin damay bind man sëñ Touba di tuxale ca lawhul mahfuz boo ko xamul mooy téere ba yàllay bind yëf ya fa document ya fa mu ne fa yàlla denc mbiram yi muy dogal foofa ne lay tuxale sama mbind ak ci xalima sunu borom gi min xalamihi ni wo fi hurufi lam amin te li ma wax ci sama araf yi nekul waxi neen wax ju dëggu la mu wat waxat ni kitabati min lawhi rabbi tunqalu la yamtari fiha nabihun yaqilu sama mbind man seigne touba mang koy tukale ci lawhul mahfuz mu ni loolu ku ngeen gis mu koy werante xam leen ni yalla yeewagu ko waaye képp ku mus ci nguru sunu borom ñu yela da nga xam ni mbind mii moom mënuñu ko bind ci aduna la mu dellu waxaat ci mbindam waj alxaraati sii bihi wa qalami xayra ibadatin wa xayra sulami yow yàlla nag ma defal sama waxuma sax mbind mi mais këyit yi ma teg xaraati si mooy ay xiirtaasam këyit yi mu teg war cee bind këyit yi ak xalima gi mu teg war koo binde muy big bi tey ak fëy yi na mel ni ngën gi jaamu yàlla goo nangu nekk itam ngën gi kuy yëkkati ab jaam di ko defal escalier di ko yóbbu ci boromam mu jote ko mu dellu wax ci mbindam tabasamal muxtaaru min jinaasi munzu bada bihi bukkal xanaasi su may bind sama mbind mii ngeen gis saa suñ ko yëkkatee jàng ko iblis dafay jooy kon ndeke suñ mun taxaak ñuy woon ñëw leen ñu toroxal iblis ndax tey jii nit ñi seen xol yi ëmb na iblis ba suñu borom mere nu wàcce mbas kon nag ñëw leen ñu toroxal iblis. mën a dellu ci lu baax ndax nit dina dem ci ay tooñ. ba dootul mën a tuub dellu ci boromam. ñëw leen ñu toroxal iblis mu jooy. ndax saa suñu jàngee mbindum sëñ Tuubaa iblis jooy. waaye yenentu yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam daal di muuñ. tabasamal muxtaar la wax day muuñ moom borom barrière or bi te bu yenentu yu bégee rek yàlla indiwaatal nu jàmm ndax moom rek la xool. mu dellu wax nu moom sëñ ba tey ci mbindam. mu ni kitaabati tubashirul wa inda iblisa tafooqul midfaa mu ni sama mbind dafay bégloo yarante yàlla muhammad kon nag jullit bu ne war naa bégloo yarante bi mu ni waaye sama mbind mooy seen ngànnaay wala moo gën ngànnaay bu ngeen di am ngir protéger seen diggante ak seytaane mu dellu waxaat ci mbindam tuwasilu aqlaami ilallaahi aabidan bila xalwatin wallahu abqa kama arma mhm. sama mbind bépp jaam bu koy jàng te di ko sellal di nga dem ba àgg ci yàlla sa borom mi la sàkk te du jar ngay dugg xalwa mu dellu waxaat ci mbindam moom sëñ Tuuba kitaabati faaxat suyuuqa tarqiya wa kulla xayrin wa suyuuqa tarbiya sama mbind ca nooru daara bi moo féete kaw bépp yiw féete kaw mbooleem sëriñ buy yare ci yoonu yàlla ak sëriñ buy yéege ci yoonu yàlla sama mbind ko gën a gaaw boo ko sellalee mu dellu ci mbindam wax ni ilaa tawaalii yaquudullaahu asraara laa ilaha illallah yàlla wommat na secret yi mu def ci laa ilaha illallah di baat bi gën a foor bu ñuy wax def ko ci samay mbind mu dellu waxaat ne ilaa tawaali fii yaquudullaahu anwaara laa ilaha illallah yàlla jël na leer gi mu denc ci laa ilaha def na ko sama biir mbind mi ma bind man sëñ Tuuba mu dellu waxaat ilaa tawaali fii yaquudullaahu laa ilaha illallah mbégtem laa ilaha illallah nit a ngi téye kurusam di def 124000 ñee di def 313 ñee di def de nga 141000 nangam nangam mu ni matatut lolu selal ko rek ndax mbind mi dexeñ na ci lepp bo jappé ci sama mbind da ngay dem ba mujj gi mbekté mi yalla denc ci bir la ilaha illallah day mujj far and ak yow far ak yow mu wax mom sëñ touba ba tay ni wajal kitaabati la day ka baaqiyaat kon mbind sëñ bi dafiy des waye baqiyat wa salihat nga xamni ni fi dess la nit ñi di jariño lo xamni la tazalu namiyat tasaalu dootul deñ di développer wu day gën di yokk fu mu toll ngir firndel lolu aljana lañuy wut ñun ñepp te mbindum sëñ touba ci la gëna gaaw dafa am bis serigne bi wo Cheikh Ibra Fall buba jàngkatam bu mag la won mu ñew serigne bi ne ko mawahibun nafi' fi mada'ihi safi' jang ko ma degg la Cheikh Ibra Fall di ko yëkkati sëñ Touba. Mhm. day jàng ba mu yàgg rek sëriñ bi ni wëlbét daal di jël caabi ji ubbi baraagam bu nañ ko dajj biñ ko dajjee lépp ay yére lañ ci ju mhm. sëñ bi ni ko fobal lépp yóbbu sëñ Ibra Fall buuba fob lépp sëñ bi ni ko dajjiwaaleel baraag bi boole ci demal dëkk ak moom <laughs> xam ni kon ñun ñii ñuy def ak xasaayit mhm. moom sëñ bi da ko daan def moom mi ko bind te wax na ni hëjat xasaayit yi xulóobal anbiyaa yi maal malaykati inda rabbiya sama xasaayid yi ni muy daanale sama taalibe yi ni lay daanu loo yanantu yi saa suñ ko jàngee Souleymane da koy yëg comme nun Yunus da koy yëg comme nun yanantu yàlla Muhammad daf koy yëg comme nun Daawda da koy yëg comme nun mu ni ak lan ak ay al malayka malayka yëpp ak seen njiit Seydina Jibril alayhi salaam dañuy bégge sama mbind man Cheikh Ahmadou Bamba am na ci bis euh, Serigne Hamidoun mu toog di déglu ci genn keesam ndekete am na ñu fa taxaw di yëkkati mbindu sëñ Touba. Mhm. sëñ bi di leen teewlu ba mu yàgg mu fëgg nii ci sàkke bi daal ni ana ñooñu sëñ xaalisa yi mi ngeen xam ni ko nun la mhm. mu ni ko nun la day dollib laaj yéen ñan xaalisa yi ni ko xaalisa yi sa mas mhm. sëñ bi ni ak kan mu ne ko ak sëñ Mouhamadou Touré Kamado mu ni waaw ak kan mu ne ko ak sëñ Mouhamadou Lamine Gaye sëñ bi ne ko ak kan mu ne ak seigne Ahmad Tasrif Sougou seigne bi ne yene netali sama bindi mi wiri len ma wax len dara ci sama bindi mi ba ñu wiiree ba ñëw toog seigne bi ne len bindi momu jëndoon yëkëti man Ahmadu mako bind xam nga bindi mi dafa gëna woor ndax seigne touba ko bind fi ne man nga top nit sax erreur am wala mu sank la waye bindu seigne touba la sanko doo ko dégg ndax seigne bee ko produire artiste bi mom moy artiste bi nga xam mo produire bi tableau d'art sëñ sëñ Tuubaa ko bind. mi daa gën a man Ahmadou mako bind. yeen ñi ko doon jang xam ngeen nu ngeen ci mel ak ñi koy déglu. nu ni ko bëgg nañ ko xam. mu ni am picc bu mag bu ñi wax njanaaw. njanaaw boko ko moy picc bu mag. mu man mi ko bind mel ni aw njanaaw. moy picc bu mag. yeen ñi koy jang yeenay ay laaf ñi koy deglu di ci bekk sama mbind. ñoom ñooy dunk yi eh. daal ni ndax njanaaw li mën naa naaw dem bàyyi fi dunkam ak i laafam ñu ni ko déedéet mbàkke bàll mu ne kon sax leen ci di jàng sama xasaayid yi mm-hmm. su ma jógee man maay njanaaw li yéen ay laaf yi ñu koy déglu di ko bége di dunk yi ma teereg yéen biir aljana kon sëñ Muntaxa woo nañu ci garanti aljana ju sax mm-hmm. waaye woo nañu tamit ci dalal réew mi mm-hmm. ndax fi ne réew mi soxla na ko te sëñ Tuubaa yàlla may na ko mbindam dafay saafara lépp waxon nako serigne demba kebe bay demba kebe ci mag ni ko daan bindal la bokk mhm. da di ko demba kebe muniko ni muniko xana xamoni demna ko xanaa xamoo ni dem naa Sallallahu bu may tagg yonante bi alayhi salaatu wasalaam sama khalima rek diko beug def ci sama da di beug tag tagg bi mhm. yanant bi day contane bég ci lol yakam diko lolo tax ma dox ba bayyi bind safara ndax rusna tok di bind safara te bi may capp sama daa ji fas yéene bind saafara yanant bi di séentu ma woy ko may bind leneen waaye yàlla soppil na ma sama xasida lépp saafara la mhm. kon làmb nañu fépp docteurs yi def nañ li nu man mhm. médecins yi jaar nañu fi nu man mhm. scientifique yi xalaat nañu tawat ju am trois ans ñi xam xam-xamu médecine dugg fu nekk nañu fagaru def lépp waaye solution bi mënuñu ko am feeg delluwuñu ci ñaan ñaan dara gënu cee wóor alxuraan dara gënu cee wóor waxu sëriñ tuubaa ndax sëñ Touba kat boroomam rus na ko nag. yanant bi rus na ko. te am na yàlla am na yanant bi. te nee sama mbind saafara la te dëxëñ naa ci lu leen di jariñ àdduna di leen jariñ alaaxira te mbindam mii di bindam suñ ko noppeetee jàng rek musibaam. kon sëñ Muntaxa daa bëgg. ñun ñëpp nu sax ci dellu. la onze. nanu xëy ci alxuraanu karim. yendoo ko xasaayid yi ba tàkkusaan mhm. mu toroxul sunu boroom ñaan ko mhm. ndax yàlla waxam du jaas ta moo ni war bi wa ida saalaka ibadi an fa inni ah, xaribun mhm. ujibu daawata daayi ida daa nii kon fal yastajibu lii moo ca moo ca am solo dëgg dëgg la leen ma wuyu leen ndax man fa inni qaribun ku leen jige laa dëgg la koo xam ne su ngeen ma fëggee ma ubbil leen dëgg la su ngeen ma ñaanee ma may leen mhm. te ci mbind mi mhm. ci la def lépp mhm. waxoon na ni ñaar du ma ko jox kenn dama koy dama koy teel sama bopp sama dëkk beeg sama mbind mi ñaara ngii su ngeen ma gisee ngeen noppi maa gis du ci may kenn dara nga koy sàggane sama dëkk bi ak sama mbind mi fu ma mën a nekk ma ngi ko téyel sama bopp ku ko normal ma wormaal la mhm. ku ci sakko ma may la bo jaare fi nga wara sakko la kon mbind moomu lañu señ muntaha bëgg a mhm. mbind mi nak reuy mhm. li nga wax léegi li tax mu mën ko ci te warta logique wax la yenantu be ko far la jox ko ko nee yalla mo may la meñu arab ta wax naa ko kérok bu yagul ci ben télé te ci la ko fayee ci ci la ko parce que ñi jang ta xam arab amul ci ñu ñëk ñi ak ñu ñi kenn ku seen señ touba ni mi def ak arab amul loolu mooy dëgg. loolu du waxu taasub du parparloo loolu la yàlla dogal. Mhm. ni mu jekkoo làmmiñ wi amul. Mhm. ndax wax naa keroog ci benn télé ni loo jàng jàng. Mhm. soo ñëwee fii bu yeboo nga am doctorat. mu jox la genn xasida sëñ Tuubaa. léegi nga gis ci baat boo xamul ak loo jàng jàng. da nga ni bii baat fekkuma ko ci mun jiit fekkuma ko ci xaamuus. jànguma ko ci su araawul jaahil yi kii musuma ko gis. da ngay delluwaat fole. ci ndimbalu yàlla pour xam baat bi. loolu nag bu fekkee sëñ bee ko mën a bind te moom mi ko bind fii la fekk baax li ciy firnde sëñ Tuubaa bokkut ak kenn dafa am bis mu woo sëñ Amsatu sëñ Afe Ñang sëñ Afe Ñang mooy magi sëñ Fàllu doomu sëñ Abdu Kumba aan Ñang la sëñ Tuubaa ni ko sëñ Afe ndax xàmmee nga téere arut bi jox ko benn téere arut mm-hmm. sëñ Afe Ñang ni ko bii de taxul ma xam ko mu ne ko sa bàyyee ko bindoo sëñ Tuubaa ko sa bàyyi ko bindoon sëñ Abdu Kumbaan ñam ni ko waaye bi mu ko bindee de sëñ Moor Anta sama wéjur doon na ma ci jàngal aróot aróot dégg naa fi ñuy coow ak di wax aróot ni ci sëñ Tuubaa mel kenn melu ko ni mu ni sëñ Maam Moor Anta Sali ma ci doon jàngal aróot ma ko ciy jàng ñu dem ba am ci ab diir tawat song sama wéjur sëñ Maam Moor Anta Sali tëralu ko tawat ja yàgg lool ak moom mm-hmm. léegi nag comme tawat na mënatul na koo jàngal sëñ Tuubaa nee na yàlla di ma ko jàngalal boppam noonu la ko waxee ni mu ko waxee rek laa nettali yàlla di ma ko jàngalal boppam ma koy jàng di ko jàng di ko jàng necca necca nee na am na sax ci mbokk yi ñu doon wax naan sëñ Ahmadou moo bari solo de téere bii nu mu ko mën a jàngee te Mamour Anta Sali tëdd kenn jàngalatu mu ne waaye yàlla sama borom di ma ko jàngal bi ma ko jàngalee ba téere bi mat Mamour Anta Sali naka la xaw a féex ma dem di ko ziyaare ji nee bama ba ma ko lu yaram wi def luma ma bu dé amna luma metti ci tawat gi de moy ñàkkoon a mën a la sa téré ba sëñ bi néna ah lool kay amul solo ndax ma farna farna am sax sunu borom tawfiq jangal na mako ko bopp bima ko waxé sëñ Mor Anta dafa mel ku tiit ma ngani lan ma sunu borom moo ma ko doon kan muni ko sunu borom num janggal la ko jangalé muni ko doon de mu ko kañu tok fa fale déglu la mais biñ ñëwee mu teg téere bi ni ko sen sëñ ba di jël par khut, bu ñëwee wax ko ni ko yàlla jàngale ba téere bi mat sëkk. mo ànd sax ni ko amaat naa ci déggin ko bees sax man. dal ni ko ba tukki sama nopp sa nopp lii kat bu ko wax kenn. ndax boobu mu ngi koy protéger di ko ndax tel gee sotti ko ne ñëw di la jàngal arut dëgg la kooku mënoo yem kenn ci làmmeñu arab moo tax li ñu bind kenn mënu ko bind du am léegi bayit bii nga may nga may leeralal hmm. ma jox sëñ Jibril mu relancer ndax bëgg naa comme tudd nga sëñ Muntaxa Amna, lu am solo lu ci seigne pap mi indil nu ndax euh dafa am Cheikh Amadou Kara dafa am bat bu mu waxon keroog bi seigne Muntaxa waxee ni man kat sama fan jaayante naa ko mu ne ko li nga wax munul ne ba defal ko talib bo xam bim toge xam nañu ne fa seigne ne murid deug ngay nek pour nefa seigne muntaha fam nek murid deug ngay nek ngay nek pour mën fa nek soo dee nekk murid bu am calcul wala am benn espace bu des ci sa xol doo ko fa fekk foofu moom dafaa ne mooy daa sës rikk la ma waxoon ne yegg naa fa ñëpp doon yegg na fa gaa yi yegg naa fa waaw mat na sëkk sëñ Tuubaa dafa wax fii ne xaadali allaahu jaza allaahu bila wa ajra abdillahi waaw dafa wax ni sunu borom wommatal na ma payam maanaam bi muy fay mhm. yàlla ci sunu bopp moom ci boppam moo ma ko wommatalal boppam xam nga leg leg sax yow sa patron war la fay waye dalay wax jaaral ci fitna yi yek pour ma fay la da nga xal ba la 5 ak jeulal auto fek ci ma fi yek jaaral ci bureau bi yek wutal protocole ak signal fii ak boobaa day jafe lol nak te dina la fay waye mom yàlla mi fay ñep moma ma woomatal sama fay man jox ma khadir yàllaahu waaw jazaa allah wa bilaa yàlla la bila adan nak ta bi may fay na def ci ben lor léeg-léeg ngay fay nit sax defal ko ci ay conditions yoo xam day metti ci moom defu ci benn lor waaw wa ajira abdullahi mu jox ma tam nag yoolu jaam jaamu bu yàlla xam nga tey jaamu yàlla lu jafe la mm-hmm. nekk jaam bu yàlla rek ko def yow jaamam nga mm-hmm. ñu néew la ko wax mm-hmm. ni'mal abdu innahu awab waxoon na ko yenantu yàlla ayóba de kooku nangu na ne jaamam la sama jaam bii baax na la wax dëgg la wax na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam subhaanallazi asra bi abdihi laylan ila al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladi barak naa hawlahu wax de nangu dane jaamam la kon diw sama jaam la yàlla nangu moom gim la moom nang reconnaître la yow ni jaamam nga parce que condition jaam yëpp réunir nga ko boobu yool bu jafe la sëñ Tuubaa ne man yàlla woo matal na ma fayam sans condition sans difficulté ba noppi jox ma récompense ni jaamam nangu ne moom laa waaw la wax waaw buur bëgg la nga bëgg buur buur bëgg la da koo gën nag ndax euh, yaakaar naa ne loolu rek la ñuy wax kon sa Jibril ma bàyyi la euh, nga nga ñëwaat tuuti su ko defee ñu dugal sëñ Pape euh, moom it mu indi ñu ay abiyaat yi nga xam ne ni général wax na ko ci seex Cheikh Mamadou Mountakha maa ngi ñaan na kuy seetaan nga ñaanal si Mountakha mu yàgg fi loolu téwér ndax li ñuy wax naan mooy mooy mooy solution bi solution baa ngi nii waxtu wu nekk rek dana indi solution nit ñi mooy lan mooy tey fi mu nu la sëñ Tuubaa wax kooku daf maa warlul at mu nekk dama koo warlul way ju weex xam naa xamoo ne gars yi bu ñuy màggal anniversaire yonente bi comme ni ñuy def di fàttaliku moom nee na anniversaire am tagg yu bees la ma war ci moom mhm. mustahsanin kulla aamin yow mu yuxtaaru at mu ne moom daa war a génne lu bees tàq tëggal ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam sëñ Jibril jërëjëf jërëjëf sëñ am si Ablaye bég nañ lool tabaarkalla eh, sëñ Xaadim xam naa balaa ñu ñëw ci sëñ Pape sëñ eh, Tuubaa mhm. dafa sol robb avocat dox suñu ak suñu borom layal ñuko wahal waxal ñuko nyikat ne top, ñi kat bu len top sen moy yu bari sen yaram yu neew doole yi sen nangam sen nangam sen nangam ba ñew mu créé ay ñaan nak xam suñu borom fam ne mu teug ay ñaan dugal ko ci xel seigne na ci legi dama xamone fofu bu ko لاستجب دعوتي بما فاخ ظني وبما فاخ ربي كل ظنوني قال يويو مو جيل كو دوغل كو سي قصيده اك يينن خيت نيان لان موي دايوب نيان اك بلاصام سي قصيده سين توباي اك نداخ نيان غوغو سون كوي جانغ دا ملني نين نوي واخ اك سونو بروم سي لامينام اك ليغ ليغيت مو واتي بوبام بيندي نو خامنتني صاح si yenn xaside yu mel ne ay ala affaire jàppee boppam ni man nangam mu leer ma ne muy wax moom weesu na foofa waaye ñun ñii di ko jàng moo moo tax loolu loo ñu si mën a jox ay misaal laataa ñoo ñëw ci sëñ bi. Euh, mhm. waaye xam nga loolu sëñ bi lay doxee ridda mhm. dafa am lu ñuy wax al maqaamaatu al yaqiin atisa mu wax ni juróom-ñeenti xeeti ndee la yoo xam ni. Mhm. bala nga yëg ci yàlla faaw nga dee ko maanaam ba nga xam ne moo ci gën a kawe mooy ridda bi sës ci moom mooy sukkuru ba sësaat ci sukkuru mooy sabru gis nga nag eh, moo tax yonent bi saa sam ban ko laajee ni ko muñ ak sant lu gën dañu sant gën ndax muñ dafay sës man toog naa aw ma dépasse ma ne xaaral ma seet sëñ Ablaye Diop mun ma tey de moom yëf yi Njaay la sant ma ñëw sëñ am mu wax ma lool ma ñëw sëñ Jiru wax ma lool ma ñëw sëñ Sall moom ku ma yaakaar dem ci moom lu fa des muñ mhm. kon muñ dafay sës mhm. mu ni sukuru nag bi ko nit kiy def moo tax jëf lay doon bokkul ak xamdu mhm. waaye sukuru bi ko nit kiy def da koo tal da koo tal maanaam ndax nit bu ko nit bu ko yàlla mayee mu mën dafi mën a dem dafi njaaxum ba noppi mu delloo ko yàlla kon tal na ko moo tax mu ni boobu moo gën a kawe waaye rida boobu nag ma waxoon léegi sëñ bi day doxee noonu xam nga rida mooy lan sëñ bi bu bu xëyee suba yàlla teg ak taab taab googu mu moo koy dàqal mu wér. Hmm. loolu du ñëpp fa toll. Hmm. Hmm. <laughs> maanaam tey bu xëyoon ah ñàkk ab ñàkk euh. dépasse googu moo loolu moo tax bu këram daan lakk daawul génn dara. ndax nee na bu ma génnee dara damay daw dogal bi yàlla. loolu mooy rek daa nag loolu du ñëpp fa toll sëñ bi day doxee noonu. moo tax sëñ euh, euh, sëñ Daama Rahmaan da ko waxoon ni ko li ñu yéeme day mooy. sooy ñaan sa borom soo ne càpp aw bayit balaa bayit waa daanu sa boroom defal lu gën a kawe loolu mbaa bayit wa ca sës waaye sëñ bi dangay dégg mu ñaan fii dara mu ni sama borom may na ma lii dox tuuti ñukk-ñukk daan ni daal di ñaan lu gën a suufe loolu loolu rek daa ko waral loolu mooy koo xam ni waxtu wu nekk màggu yàlla gi mooy feeñ ci yow ba doo ba doo yëg ni dara nga mm-hmm. sëñ Tuubaa noonu doon doxee loolu nag eh, moo tax kon ci bayit ci bayitam yooyu ngay wax ñaan. waaw ñaan suñu laa junj ne ko sànq. ñaan gi nit gën a taamu mooy ñaanuk yonant moo tax rabbana yi ak ñaan yi nga xam ne yonent da koo ñaan yàlla nangu ko yooyu danoo danoo wax ni ndax ñaan gu nangu la ba noppi moom danoo taamu ku koy ñaane muy benn bi ci topp mooy jëf ju nu nangu. jëf ju nu nangu waaw jëf ju nangu. waaw sëñ Tuubaa nag xes dayim jëf ju nu nangu ya maanaam jihaadin qada war a ci hmm. wa rabbi ka sa'yi kulli haadin arsala li ma doon def jeex na yàlla nangu na lépp kon jëf ju nangu la te nee sama jëf ju ci nekk nag wuutu na jëf jëfi yonant kon kooku loolu jëf ju nangu la muy benn bi ci toppaat mooy sëñ bi ju ñi fi jaar ñëpp duñ jun nan loolu xam nga damay wax Ablaye wax na ko sëñ Saliou wax na ko gis nga maanaam sëñ Tuubaa soo soo duggee ci alxuraan tuuti mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. ak noo mën a mel mm-hmm. nga nga nga nga nga nga xetantal mbirum sëñ tubaa su la neexee ak su la naqaree sëñ tubaa dina la yem xaw ma nag nga bañ dugg ci alxuraan bañ a jàpp ni sëñ bi jëfi boppam jum jëf nee rek muy xasida yi mën a am xam-xam mën a woy lam yan xu nax yi wala arud yi taqawulun aw afatul xaridi bi sëñ Ablaay doon wax mu ni nax nax bi may tagga rasulullahi sallallahu alayhi ak arud bi ma koy tagga yàqu ci am werante du ci am sëñ tubaa du yàq werante it du ci am mhm. moo tax man la bu fekkee da dangaa dugg ci alxuraan tuuti dugg ci mbirum sëñ tubaa ak koo mën a doon sëñ tubaa dina la yéem mhm. li ma la jubloo wax mooy mhm. xam nga dafa wax ni naabat kitaabati ani silaahi wal jawalaani li sawi salaahi li sëñ Ablaay waxoon ni ku ko gën maanaam sëñ tubaa maanaam ni mu dégg arab lu j yu yéeme la ne sama mbind wuutu na ngànnaay ñun lan lan lan xam ci ngànnaay ngànnaay liñ ci xam paka ci la bok jaasi ci la bok fital ci la bok nangam ci la bok señ bi waxul lolu ngannaay ci sharia la wax way waxul ngannaay kefe motax faaw señ bi nimuy waxe ñu dégg ko nabal kitab an silahi moy sama bindu wuutu na ngannaay ci sharia moy jep jaamu gu nit di jaamu sama bindu wuutu na loolu lolu moy ngannaay ci sharia motax mu ne yow mi wut ku la defar jëru ngay sonn wala je sabi sawi sama qasdi day de de gis nga ñaari bayit yi bayit wi ni mu ko tëggee mhm. lee dafa wax ni gis nga moo tax boo gisee Sëriñ Tubaa mbiram boo setantalee tuuti laa wax de mhm. te it nee naa képp koo xam ni yàlla dimbali na la ba ngëm leeru ngëm nekk ci yow mhm. doo mën a weddi Sëriñ Tubaa déedéet topp gi nag moom du ñëpp koy topp ñëpp mën na topp ñëpp mën na topp Sëriñ Tubaa duñ ko def de la waaye nag ndax loolu dara la waaye maanaam bu leeru ngëm nekkee ci yow doo mën a weddi Sëriñ Tubaa xaw ma nag ku leeru ngëm nekkul ci moom xam nga hmm. gëm ak leeru ngëm bokkut yor yor yor yor paquetu suukar ak suukar daa bokkut parce que nit mën naa yor paquet suukar bu jeex amul njariñ boo ñëwoon ci bitig bi jaay ma paquet paquet lan suukar saa tax hmm. mais mais yor paquet war a kees taxut a yor njëriñ dama ne leer gëm maanaam gëm naa yàlla ak leeru ngëm bokkut parce que leeru ngëm day sax ci xol leeru ngëm ku mu nekk ci yow doo mën a weddi sëñ soo ak ku mën a koo dégg muy sikki sàkk mbiram rek xaman leerum ngëm moo manqué ci moom moo tax julli mën nga koy def sa doo am leer leeru julli mën ngay julli te doo am bànneexu jaamu yàlla léegi nag loolaa moo tax boo demee ci alxuraan lii sëñ taxaa def woote gii faaw ñu laal ci tuuti mooy li sëñ sëñ Jibril doon laaj day ànd ak li may tontu xam nga boo demee ci alxuraan sëñ Ablaay boo demee saarion bu dee xafs bu dee wars àndiwul waaw mais bu dé xabsu dafa andi waw wa la def sari'u comme warsa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arda as samawati wal ardu mhm. lil muttaqin motax ci lu ciowlu bari bari mbir yi ñi ragal yalla dong koy mujjé mhm. sëñ Ibrahima dénga lool ciowlu bari bari ñi ragal donc dong mujjé suñu borom da fay indi misalum wax ni na ngeen gawantu jëkkelenté ci lu leen di jëmee ci njëggalu yàlla waaw muy benn mhm. ak na ngeen gaaw jëkkalante ci leen di jëme ci àjjana mhm. mu mel ne foofu dan koo laaj ne ko àjjana jan mu ne àjjana yooyu day boo xamee asamaan yaatuwaayam ak suuf rek xam nga àjjana ak yaatuwaayam da ko waxee noonu waaye àjjana ëpp loolu yonent bi saa sam ba mu koy firi waaye lam ci teg waaye da maanaam eh, li mu taqi na mhm. àjjana ji jooju ñi ragal yàlla la ko yàlla waajal léegi nag lil mu taqi na jooju moom la yàlla waxaat ci suuf di leeral mooy ñan alladina yunfiquuna fi sarraayi wa daraayi mhm. wal kaazimina gayza wal aafina anin naas mhm. wallaahu yuhibbul muhsinin maanaam mooy ñi nga xam dañuy joxe su suñu barilee mhm. sarraa yooyu bu nu barilee lay tekki wa daraa bu nu néewalee waaye nee nag ki am di joxe yéemewul xam nga kan moo yéeme ki ki ñàkk maanaam ki bariwul di joxe moo tax dégg yenn saa yi nga dégg ñu ni yàlla xeebul yéemul ah kay yàlla xeeb na yéem na hmm. Hmm. ndax ki bari le ah di joxe tuuti hmm. yor téeméeri junni sa poos hmm. war di saraxe jël jël jël ñaar fukk joxe yàlla xeeb na loolu yàlla yéem na ki amul dara am du muy leen nit soxla ko mu jox ko sarax ko loolu yéem yàlla yéem na ko kon yàlla xeeb na yéem na moo tax alésine yi soxna fi saraay wa daraay wal kaasimiina xëy sa ñi nga xam ne bu nu meree wan ko guux ko ba mu ba rees kenn du ko yëg mhm. moo tax suñ tubaa ne xaa a xaasabtu nafsiya maala aada bi kas mi rëy si wa ma xawta dayi ne ni ma ànd ak tubaab yi damaa fexe ba du ma jàpp mer bu doon jàpp mer du baax de la <laughs> kon àdduna tukki xaasabtu ma xawta dayi muy benn wala wax gis nga mhm. xas day ni muy demee mhm. léegi nag wala yoxe mufsid dafa am ku ne eh, Seydul Abidin mhm. amoon ab jaam mhm. bis mu woo ko mu ñëw ni ko kaay def la ma jàpp mhm. bi mu koy sottil nii muy jàpp li mu ko doon sottil wadd bi mu waddee dal dal ci tuñ mi dagg tuñ mi dal ci tànk bi dagg ko jaam bi tiit taxaw mu ngi taxaw tiim ko Seydul Abidin daal siggi xool ko jaam bi ni ko jàkk mun ko jàkk jaam bi ni ko والعافين عن الناس منك عفوت عنك منك والكاذمين الغيث منك كذمت غيثي منك والله يحب محسن منك goreel naa la ndax dégg nga loolu léegi nag li ma waxoon sànq ci àjjana jooju yàlla wax ci ni doy na asamaan ak suuf ak yaatuwaayam suñ muntaxaa dafa bañ gaañi nit ñi toog ah ci lu leen dul may jàmm ëllëg Mm-hmm. sëñ Ablaay mbaa nit ñi toog ci lu leen lu leen jural tuyaaba mm-hmm. moo tax yonent bi saa ba mu koy firi mm-hmm. dafa wax ni yomal xiyaam aaye boobu laa wax de dana aaye boobu mu ne yomal xiyaam sëñ Saalou euh, bu nu attee jaam yi ba ñii de war a dem àjjana nee na ba ñëpp dugg àjjana ñi war a dem àjjana ñëpp dugg àjjana day am ku tardé xam naa am njóobeen lay doon <laughs> yaa ngi dégg eh. nee ba gaa yi dugg ba jeex ba jël seeni dal ba toog jàpp seenu njàmbur ne ci lan ne waa ji a yonte bay wax de mooy firi nee na bu ëgsee ñu ni ko waa yow yàlla ni ko yow foo ne woon mhm. yow sa morom yi dugg na àjjana bu yàgg ba jël seeni dal ñu ngay mhm. xéewlu ci àjjana yow nga toog ba waxtu wi mhm. mu ni ko ah man daal xam naa maa ngi door a ñëw yàlla ni ko waaye xam nga ni ngay def seetal buuru àdduna boo xamoon te mu neex la nga wax paleem ba na mu doyoon ci alal ak koom ak yaatuwaay nga wax ma ko ma jox la lu doy noonu ci àjjana mu ni ko ah loolu nu ma mën nekk di ndax man àjjana jël nañ seen dal ba ba jeex na kon mooy wane ne àjjana fees na yàlla ni ko di tey ngaa def na ma la wax mu xalaat benn buur ni ko diw su borom ni ko moom de li ma amoon paleem boobu la mu doon rëy rëy yëpp defal naa la fukkam ci àjjana mu ni ah, mun ko dolliwaat naa ci fukk mu ni kaa ah, mun ko dolliwaat naa ci fukk loolu day wane ne àjjana da lu jeex du fees loolu la loolu la yonent bëgg a wax mm-hmm. kon aay boobu lu firi ko bëggee dimbali mm-hmm. bu ko bañ mu am jot serigne touba ngeen nee na ñett ngi ni yoo xam ku ci jaar muccu dimbalul yalla way du ngor ak nit serigne touba wax de mm-hmm. neena ñett ngi ni yoo ku ci jaar muccu dimbalul yalla la way du ngor ak nit mm-hmm. neena nga nek ndaw jaar ci ak ndaw bu muccu mm-hmm. ne dimbalul yalla way du ngor ak nit neena nga am alal di ci def lu baax di ci def lu baax muccu serigne touba ne dimbalul yalla way du ngor ak nit waye neena am jot ne ci am jot ba def lu baax bu muccu sëñ Tuubaa ne ndimbalul yàlla waaye du ngóor ak nit xam nga xale yi nekk xel xel koo mhm. amuñu jot ak toj fii moo tax temps da koy seere téye ko bu baax a baax mhm. moo tax moo tax waxtu sëñ Tuubaa xam ngeen ko mhm. fii ne waxuma sax jamee sëñ Tuubaa waaye ñi jaar daari sëñ Soñ bu sëñ Soñ bi ñi moom koo romb yoroo dara déedéet ñi moo xalaatoon nga ko mooy dañu dul bàyyi nga yow sa sakos bopp nga am benn jot nga am benn jot parce que nit ki saaka boo bàyyee boo ko bàyyee am jot baax moo tax sëñ Tuubaa boo demee ci ay xasidaam li muy wax sëñ Abdou Lahad dañu woon waj al joogi suñ Tubaa wax ka jaala la waxe sëñ Abdou Lahad nag laay wax mu ni wahab joogi suñ Tubaa wax ko wahaba la maanaam may ma waj al mooy yàlla maa ngi la ñaan nga defal ma nàngam joogis sëñ Tubaa wax ko fekk yàlla def na ba noppi loolu nag neex naa dégg yéen a wax ni alxuraan sëñ Ablaay dañ koo toxale ci lawul mahfuus andi ko ci asamaan si léppi alxuraan xaj na sax ay bi muy ñëw maanaam saar bi muy ñëw tegaloowul nii waaye ci lawul mahfuz moom nii nii kaamil bi tegaloo noonu la tegaloo woon foofa dama ni nii kaamil bi tegaloo nii ca lawul mahfuz mm-hmm. noonu la tegaloo woon mm-hmm. waaye wàcc gi nag tegaloowul woon noonu mm-hmm. waaw lu tax yàlla nettali ci mbirum yuusufa nettali ci mbirum aadama te boobu aadama amagul nettali ci mbirum yuusufa na muy demee te boobu amagul nettali ci Musaa firawna te booba na amagul Moussa amagul mhm. yàlla nettali seen mbir yëpp na muy demee mhm. te booba ñoom amagunu mhm. kon mooy toxal gi ngeen doon wax xam nga lu nu nangu maanaam dafa bokkul ak la dëgg la waaw xam nga gis nga yàlla nettale woon booba Moussa amagul firawna amagul Égypte amagul feneen amagul ndax yàlla ba muy wax alxuraan booba loolu amut dëgg la ba yonent bi ñëwee mu taxale ko indi ko fii léegi nam doon defale nam ko doon tegalee saa yi wàcc rek day fekk loolu am dëgg la kon loolu ni alxuraan dem dañ koo taxal indi ko noonu la lépp demee sëñ Touba waaye temps bi temps bi temps bi mu am tey sëñ Touba diggam ak boroomam dem na ba ak ay nelawam sax nekk jaamu yàlla naw mi ibadatu rabbin la sharika lahu xal bi yu dabbiru aayan turutul xikama temps bi ni mu xate est-ce que logiquement sept tonnes cinq cent xaj na ci sëñ xaadim déet xam nga sëñ xaadim tontu laaj yi dimbali aji néew doole yi jaamu diggam ak boromam booleeg maanaam kut ci ay loxo yi ñoo xam ne ni bu leen santee ñu def bu leen teree ñu bàyyi booleeg li mu tagg yonente bi temps boobu ni mu saturé waaw xam nga faaw nag ñu xam di la foqutal maanaam faaw nag ñu xam ni yàlla yi lijjantee mbir xam nga dama lay wax mbirum mbirum mbirum suñu borom ni mi doxale inna lladiina kaddabu bi ayatina wastakbaru anha la tufatu lahum abwaabu sama wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyab wa kadalika najzil mujrimin yàlla dani man na ma ray gëléem way munu mako jaxanal way su ma neexee jaar la ko ci mën buso ndax dégg nga wax munu ma ray gëléem way man na ma ray gëléem way munu mako jaxanal way suma ma neexee yalla ko ci bën bënu puso mhm. ki mën jaaral jaarale ci bën bënu puso hmm lum la def lo di ko def mhm. seigne touba ko seigne touba suñu borom moko don def mhm. def hmm suñu borom kumuy def lo li ngay def di ko def waye nak nan xamni amna ci lo xamni ni mëne su koo leeral dëgg ndax amna lo xam ci doom adamay yi kese kese kese kese mënu ko lolou mo lu leer la waaye damay wax bataay ni seigne bi fi mu dimension bi mu toll. Mm-hmm. am na noo xam boo ko waxtaanee. Mm-hmm. ñi lay wedd ñu ëpp. te su boobaalee nga ni alak te suñ tubaab ko wedd al ko. dëgg la ndax dégg nga jooju wax. Mm-hmm. moo tax loolu. sëñ bi dimension fi mu toll woon. ak ni mu doon defee. xam nga euh, mën naa ci indi misaal yu leer. xam nga man sama waajur. ku ne xam na ni njaarim la ne woon. moom moo wax lii may bëgg a wax. maa ngi dégg sax ñu koy nett te nañ koy nettali sax noona la. waaye moom moom ko nettali ba. mu ni sëñ Malick njaay ci boppam. sëñ Malick Ndiaye Malick Ndiaye. Mhm. moo ko moo ko wax. ne sëñ Malick dafa ñëw fekk leen fekk mag ñi toog ñoom ay gonoon la woon moom. Mhm. nee na mu ne ah sunu waaj defati na njombe de. Mhm. loolu la wax sëñ Malick Ndiaye lante noor mu ni sunu waaj yi defati na njombe de mag ñi ni ko lu mu defati. muy dañu jiite woon waxtu xam naa waxtu biral la. waxtu biral la nee na muy tari Fatiha. ne sëñ ma sàmbaa ngi ci sàpp bi mhm. sëñ mu dumbee ngi ci mag ñu bare ngi ci mhm. ne sëñ bi mu ne alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata mustaqim bi mu tolloo foofu mhm. ñu seen ko muy dox teg tànk tegaat tànk sëñ ma sàmba nee na moo dawal loxoom laal mbuum bi sëñ bi taxaw bi sëñ bi jullee ba noppi nee na sëñ ma sàmba raam bëgg si ci moom nee na sëñ ma sàmba bu mu sànd wax ak sëñ bi ngelaw ngelawam ngelaw gémmañam daawul dugg ci noppam sëñ Tuubaa da ka daan moyele da ka daan moyele gémmañ ci mm-hmm. nee ni ko mbàkke da deflunu def lu nu jaaxal sëñ bi ni ko lu mu doon mun ka bi ngay taree fatiha ba si ihdina siraatal mustaqiim mm-hmm. dañ laa gis ngay dox ba maam teg sama loxo ci yow nga taxaw sëñ bi ni ko naa ma sàmba baatum la wax de mm-hmm. li ma wax rek laay wax mun ka naa ma sàmba boobu yéen may gis mun ko mbàkke boobu ñu lay gis mun ka boobu bi ma taree ëgsi foofu siraat dafa gàllu sama kanam waxtu woo ma jàpp ni ma bëgg leena jall suma suma ñëwé di jël ci mbolo mi mhm. kon lool la lay wax Touba yim daan def jëfi nit est-ce que mais lo amna lo loo pour netti ko mhm. danse la man mhm. na ci indi yenen waaye loolu ab junj la parce que Seigne Touba mbiram ma ngi néwon ak mom amna lo loo la ka wul wax man sama da Seigne sëñ da na xey suba teju ba ngone barke Seigne Touba Mbàkke gis nga su ubbe danaan waxtu wii ba bisub tey dam mun ma woon a jaxasoog nit ndax sama xel daa dem jaareem ce waaw loolu laay wax ni la kon li mu doon def ci temps bi temps bi mhm, mhm. ci doomu aadama yi kese mhm. mënul loolu lu ci xaj dëgg la nan seet nag kon lu tax mu mën ko dëgg la wallaay wallaay wallaay lii mu doon wax nii pour dëggal ko euh, sëñ Mouhamad Lamine Diop Dagana sax ko nettale muy lu leer nañ ñi ndax ñoom dañuy nettali li ñu dund ak sëñ Touba bind ko ci seen téere mais dafa am julli suba go xamni ni mhm. bi dafa yeex a génn naa nga ko mako ma ko liire mhm. yeex a ba mbolo ma la ci ëpp julli ñibi ku ñi wax señ Modou Cissé mo fa des ak señ sirélo mhm. bi señ bi ñëwee laaj leen ni ana mbolo mi xana ci yéen mu ne ko ñi fi julli indi won képp de julli nañu mbacké ba dem mu ni yeen nak ñu ne ko ñun dañoo indi won julli dañu fee indi ak xaaral la ne nak li leen fi taxa ñew rek kama ma taxam daal ni tay fa ma juggé ba ngeen jëk ma julli dem bu ñu jëloon gëléem koo xam ni ñeent fukki at bu ko gëléem doon dox mhm. fa ma jógee mënut a agsi mhm. ñeent fukki at bu ko gëléem ku mat sëkk doon doxee fa ma jógee ñëw tey ci yéen mënu fee agsi te sàllaaw sunu boroom moo yebaloon ay ndawam ay malaaykaam ñu ñëw di tuxal li ma bindoo mu war koo mhm. yóbbu fële ca nguuram ka ma leen di jàppale ñu koy yóbbu la yóbbu rek sëf na ñeent fukki gulé guléem yu bokkul ne ko sàllaaw li ci des dong ragalaat yi moom jën jariñoo waaye loolu mu ngi ñu yóbbu suñu borom may xaar ndeysaan kon kooku mënoo ko wallaay wallaay jërëjëf sëñ Ablaye jërëjëf euh, sëñ Xaadim sëñ sëñ Jibril euh, na maa dogal kon balaa sëñ Saaliwoo ñëw ndax euh, am na ay rabbe yu kéemaane yu muy def ci jeexantalu xataaba yu yoo xam ne ku ci nekk jot nga lool ba nga koy jot yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax nga jot ko xam nga seigne touba da bëgg ba limuy wax ci mom day yam ci mom juste manam mbubb lay doon mo xam ne du ko ëpp du ko day rappelé nam doon rappelé sun borom ci yenn ay bi muy tënk xasida yi day rappelé yenen yonenti yi ne ak daraja ju ngeen mëna yor ba ngeen tollé fi waji tax waji yi moo tax moo tax ba ma Madinatul Munawwara bama dugg ñu né barrière or mané li mëna nek ki rek mëna nek ku dul kii sëñ tubaa xajul sa ginnaaw koo dégg ñu naan la sëriñam woon dafaa jaaroon di di ñoŋal lu baax ndax sëñ tubaa moo moo xeebul dara lu baax lu waaye lu yor te mu baax rek sëñ bi dana la ko ñoŋal waaye kenn ay sëriñam allahu rabbi wa waliyi abada asamani min kulli man tamarada foofu la sëñ tubaa ne woon yàlla la tegoon moom ci la doon lu waaye leneen lu mu am ci yonente bi aleyhi salaatu salaam la kon sëñ Pape nga ñëwoon liñ ab yaat yooyu nga xam ne nii général defal na ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñu door a ñëwaat sëñ Jibril mën a relancer question bi ak Serigne Saliou Samb ñu bàyyi sëñ Pam Ndiaye Kara ñu ngi ziyaare bu baax sëñ Gana Messere mi ngi may yónnee message léegi di ma wax ne ma nuyul ma waa plateau bi ñoo ngi bëgg bu baax tey concentré wu ci jataay bi ñu ngi koy nuyu baax di ziar ak suñu soxna yu baax yi ñëw ànd ak ñun li nga xam ne mooy jataay bi ñoom ay murid lañ tuwaar kàlla soxna Yaasin Bambal Muntaxa soxna maam Awa Mbub ak soxna Adama Ndiaye ak euh, soxna euh, Ndey Birane tuwaar kàlla mun sëñ Muntaxa mun sëñ Fallu bokk tuwaar kàlla kon sëñ Pam bismillah الصلاة والسلام على نبي مددرا بسم الله مامي ماي جامب متلدف درا الصلاة والسلام على نبي مددرا وآله وصحبه وغير غديمه الشيخ أحمد بامبا بل عيسى مودي درا الشيخ سيدي المختار مددو تي الربجا amoon juróom ñaari at ci gi la di sara yal na ko ku teddi ki teeroo ki leeri sëriñ baara nangul ko ay jëfam ci yoon wi mooy doomi sëriñ baara ki ko wutu tey ku ñu taamu ku teddi ki yàggal ko mam بغير النماء جماما ca dara bu fi yàggee te amuk wér waa réew mi danañ kontaan sëriñ Muntaqa ku am ci leeri aw turam yow dootoo ñàkk dara miim nun tatombe xaaf liif gu aji yan nara almuntaqa di octogone tur bi da lambo dara te quinze kon day doon jihaad sit est ouest nord sud wallahi yaa yore dara alxamisi ëllëgay doon sa fukki fan ak ci bopp xilaafa gi yàlla na sottal dara amin bi jaahi ahmad al xadim moom mi la fi teg ay cat jege fenn bu dara man ci yow dara nangul ma tey ji ma doon alkaatib muridiyan turu général bi jox la ko hadiya duma dara nangul ma ko ngir sama mi la fi teg te lool def ma ni mu ma def ba ma di dara jaayante na ak yow tey ci tooli Bamba fépp fas yéene liggéeyal yoon wi ndax jëf rekk moo di dara damay takkaat sama laxasaay maa di soldaaru Bamba di nekk sab alkaati buy géeteeru te nde duma dara doonoon naa fi ab xaj bub sëriñ bamba bu daan mbëwu mu soppi ma gayndeem gu daan nga ruuturam man mii kara mu may ma may kar ndaw ñi tañooñal tañax tañax ba ñëw ci biir bamba fépp ngir xam ni moo di dara jërëjëfe sëriñ tuuba la gone yi fowe moo may ma siiwal ko ci ndaw ñi ndax moo di dara jàmm yàlla goog dara manu ko yàq ndax it imaamu akbar moo sax leen ci moo di dara mbàkke tey fii la yam ba beneen yoon dégg ma te nangul ma lii may ñaan doonte tekkiwu ma dara asalaamaaleykum Oh, maa ngi ziare sëriñ am maa ngi lay ziar bu kilifa yu tedd yi ma bokkal jataay bi di am mbégte lool nag ndax ñii dañuy sag dañuy sag ci ñun ñu leen béggee wax dëgg yàlla Serigne Saliou Samb mhm. Serigne Abdoulahi sunu kilifa yu tedd yi xaadim macha allah ci ku ko déglu déglu li mu wax ci xam-xam macha allah ci xasaayid yi ñu ñëw fi nag di ci ndigal mhm. ndigalu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni nii mhm. nga xamante ni gis ngeen ni nga ko waxee rek. Mm-hmm. Serigne Mountakha mi. nga xamante ni ngi ñaan mu yàgg fi loolu tam ko wér. amiin amiin. keroog ba mu toogee la suñ bi ni képp ku jooyee na nga ree. Mm-hmm. tey ñaan ku tedd kii di rey ku koy béggee ba tax ngay rey looy def di ci amee ndam. Mm-hmm. wax ci moom lu doy waar. loolu dara ci yow sëñ sax yow sëñ am. ñu koy ñaan mu yàgg fi lool. waaye di ñaan jàmbaaram ji Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Ndour mu yàgg fi tam ko wér. ku baax ki mu ngi wax léegi ci li mu mel ci xasida yi wallaay limousine ci moom lañ ko gisee mu jël ko jox xasida yi wallaay ñun ñi ni mu def ñun ci baytu xasida yi ci bu dee ci màggal mm-hmm. wax ak lu mënti doon mm-hmm. dañuy mujj yéemu mm-hmm. ni mu taxawee noonu neuf heures ba douze heures ci xasida yi lay wax bayt bu mu nekk firiñu ko jàll ci beneen bayt léegi mbokk mi ngi wax léegi ci li tax ma ñu ubbee ci mu taxaa bi mënoonoo jël xasida ubbeeku mhm. waaye day ndigal mhm. sañu maarum si mu doxaa bi mhm. te sànq bi juriñ ji di wax ci xasida gi nga xamante ni mooy tawba tabax dana suux nga xamante ni ñun daanaka ci moom dana ko jàngee ba féer ci ijji la diiwaan képp ku ci ne xasida googu daanaka mooy sa xasida wa fi lima lamastu bil yadayni wa fi lima mazaytu bi rijlayni wa fi lima nazartu bil haynayni واغفر لما سمحت بالحزنين واغفر لما أكلت بالبطن وما بفرت عد عزيت يا رب السماء واغفر لما هدمته بفضلك واغفر لما أهرته بمانك واغفر بجودك لما أسررت واغفر بلطفك لما أهلنت واغفر لما حلمت يا ذا الكرم من جنايتي وما لم أحلمي وفي لما حلمت مني وحدك في حمدي أو في حتى ضعفك وآتني حسنة في دنيا وفي حد ويسرا لي سعيا ولا تواكز عبدك ضعيفا بدون فيه إذ لم تزل لطيفا واغفر له واغفر لوالديه واغفر لكل من نمي إليه واغفر لسيخه وسيخ سيخه وسيق ذاك السيق ثم سيقه ولجميع المسلمين ترى والمسلمات للحل مجرى وسليا يعني مع سلام من حد كفى يعني على الشفيع الشفعي مصطفى والآل والأصاب أهل الأوبي أنا لتائب حبول توبي لي جنرال دوغنا يدكو زيارة باخ باخ شيخ أحمد كرام باك نوريني بلا موي نيو بيت بي مو واخ سي خاسيدي نيو كرم نوي ma ne ko sëñ Touba dafa wax ne li ñuy lekk mu saf suukar lema ci dàq te maa dàq lem mm-hmm. mu ne ma ah, nu mu ko waxee ma ne ko bientu wa tubtu wa xazaltu fa li xalaa watan tafaqul xazla keroog sëñ bi euh, daanu na jël boo xam damaa mujj am kersa ci ci ci ni mu mel ci xasida yi kon sëriñ bi noo ngi koy nuyu baax di ko ziare sëriñ bi asalaamaaleykum ñoo ngi lay ziare bu baax a baax di am mbégte ci tab bi nga tab bi jotaay mm-hmm. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم ثم الصلاة والسلام على نبيه سفيه العالم وهذا آله وصحبه ما أهمل فوق الألواح والأوراق القلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام ورحمة الله وبركاته dafa dégg yéen ba nga xamante ne bii tey du ma mën am itam lu ma amel ameel loo xam ko wax ndeysaan ma diggante ku tedd ki la ak xataay bi ak yéen ndeysaan ndeysaan dama leen a teewlu mhm. am kenn teewlu boo xam ne boo ko teewloo waaw la jëlal kàddu daanaka doo mën a wax mhm. loolu ma dal fi mu toll waaye rek mhm. jarul ma maa ngi jàkkaarloo yéen. dëgg la. ku ci nekk am na lu ma la amee. ndeysaan. loo xam ne ratib ak atid ñooy samay seet. dëgg la. Mhm. Mhm. ah bisimilah. Ah. waaw waaw bisimilah waaw li ma wax waaye du tee xaal ji la waaye du tee rek. wallaay wallaay <laughs> dem na fu yàgg. damaa xam dimension bi leen ko tedd ci yóbbu. barki sëñ Tuubaa. ndax dama leen doon teewlu. moo mhm. ma ni leen ku ci ne am na lu ma ko ameel. ndeysaan ndeysaan. waaye dinaa junj rek. Mhm. dëgg la Pape doon wax ci taalib bi. Mhm. xañ na. xaj na neex na xaj na aw na yoon waaye man mi ko bind mhm. Mhm. nag euh, maay xam ya ca mhm. damay ñëw rekk ci bila sa cin al sa cin bal sa cin te ku tedd ki ne badatu bismillahi min muharrami abdan xadiman maakisan bil karami bil oh. karami dafa dugg ci mbootum sëñ Muntaxa ndax ma nga daalu mhm. ñun ñoo ngi daalu mhm. sept cent ak quatre dafa soree mhm. li muy nekk fi ñun bariwul zalum la nekk diggante sept cent ak quatre dafa sore waaye faw ñu jéem a jàng mooy kat ak li nga xam ni moom la diglee ci bis bi njëkk ci muharram mhm. bu ñu ko jàppee ilham mhm. moom du wàll yi mooy mhm. kilifa wàll yi ci tool nii ci tool moom moo fi nekkal lislaam aalam waaw maanaam ci mooy xalifa bi lislaam dëgg la ci ñu xonq ñeeg ñeeg am na loo xam ne bala ma koy wax màggal gi ñëw ba jàll mhm. lii xew yëpp ci àdduna bi malaayika yi ñoo bëgg ñu xam ni solution bi ci sëriñ Muntaxa la nekk Tuubaa la nekk mhm. la solution actuelle mhm. la solution de l'ensemble des problèmes que nous ci suñu quotidien maanaam li ñuy dund waaw ak lay jógee ci tubaab yi ngelaw li di ko indi ba ci ñun mu mel ni daf fiy juddoo mbaa daf fiy sax te bokkul <laughs> di fi romb di jàll ak sëñ Mountakha ni muy fexe ba koy dàq waaw ci dapon ak jàll mm-hmm. ci ak jàll mm-hmm. ku mel ni moom dadul xëj ci dadul jañ puuse ak tiire di ko def ndax ni muy dunde ku tedd ki la mm-hmm. moom day bàyyi ku tedd ki rek lu war a am rek kay am lu war a am door uh-huh. moom lee doon lay dunde dafa kamaat moom lii lu ñu ko wax yu la nga mhm. yonent la ñuy wax ni mhm. hmm? suñ xaadim wax na ko léegi yonent la ñuy wax yu mhm. suñ xaadim wala suñu ablaay am na ko ko ci wax wàll yu la ñuy ilham moom nañu jàpp ne al muntaqa la le choix bi al muntaqa moo tax ma ne ko su ma lay nuyu dama lay nuyoo lil muntaqa sub ma yasurruhu bilaa nihayatin wa xidmati saqa balaa te waxaana xaq mhm. loolu laa koy nuyoo ma bëgg ñu xam ne fi ñu nii moom moom dafa doon yonent bi dafa doon yonent bi ba noppi nag yonent bi ba noppi ndax ku tedd ki bu la fiy teg dalay doon loo yonent bi du la doon loo boppam de ndax xam nga suñ xarit daf ko wax léegi am na loo xam ne dafa mën a egg ci wax mhm. moom ñu nit da ko tey indi te doonu ko mhm. teg yonent bi la lay mm-hmm. ah, man maa wax de man Moussa Mbacke maa wax loolu. dëgg la moom ku ñuy doon. dëgg la ko fee indi rek mu mm-hmm. du kenn mm-hmm. mu jëla jeexin waa amal yéen naa dem moo tax buy wax ñaari dinañ ci boole ñu ñëpp di ko jàmm ci général. yërmande si képp tax mu fees mhm. waaye nañu settantal mhm. li sëriñ Xaadim doon wax ak sëriñ Ablaay mhm. xasaay yi bokk na ci li may baaxee sama bopp di ko baax mbokki tam bi jàng xasaay yi ku ko ci man bis booy jàng xasaay dee ca boole la mu bind ca bis ba ak ca weer wa amee waaw ñi nga xam ne ñooy waajal bis bi itam du ñu am ci xasida goo xam ne bind na ko ci muharram rek ñu ko mm-hmm. cay boole ci la jàng doon gën gaaw mm-hmm. bëri te man koy sama bopp di ko baaxee ñëpp mm-hmm. ndax lu baax lu nekk day am lu ko gën baax oh. du lu baax lu nekk day am lu ko baax ngi jàng ci tool ngi gaaw jëm ci ngi ci guddi te mu wax la mu wax واجهني بالفكر كل ليل مع نهاري وصاب نيلي مع نهاري واجهني بالخير كل يوم وكل شهر وأقود قومي leer na nañ bëy ji waay mhm. waaw moo tax ndeen nag dafa ndar jekk nga ci guddi yeeg bëccëg ñoo am ak waxtu yi ak biit ak semaine yeeg weer yeeg at bi ak naa muharramun wa akrama safar mm-hmm. maa rabbi hay ni wa ansoya safar safar mm-hmm. boobu borom xam-xam yi nan nañ koy firi safar mm-hmm. bu dee ci langue moderne mën nañ koo def lettre wala enveloppe wala yu demee noonu mais boobu mooy lan da ngay dem ca xasaayu rabbi ku texat bi wa zazahat li xëy ara asa bi yaa fra wa bar saf kooku mbànd la moo xamante ni bii mbànd leer rek la fees waaw te leer bi leer bi mu fees mhm. maanaam moom dafa yor ñu ko déggal malaat ñu ko déggal yoo xam ne su ngeen ko tasaare la ñu tasaare la ko jëmee waaye mhm. yéen a ngi fàttali ko màggalu daaw mhm. ñu ne zéro quatre dama yaakaar bu ma ko jàmm damay bàyyi ba màggal gi jàll bu màggal gi jàllee war nañoo wax waxtaan boo xamante ne bii borom xam-xam yi nga xamante ni bii seen xam-xam dafa màcc ci wàllu temporel. ñu xamal leen lan mooy xam-xamu rupture. peut-être que xam-xamu yàlla la yor yorul xam-xamu nit. wax ngeen ko fii léegi. ndax lim na la ilma bi abada. parce que la koy doxalee. waaye xam-xamu yàlla la yor adada maalumaati rabbina alim jaman bi wahabtali xayra ulum wahabtali xayra ulum waaw mhm. alla ya mën na wala man na bi ulumil asfiya wa bi kitabati kulla dasfiya kulla dasfiya xadim wax na ko léegi mhm. man su ma nee am na lu ma leen ameel maa xam li may wax mhm. waaw dama fees nag ba duma ci dama leen di bàyyi eh, ngeen eggale seen waxtaan ndeysaan moom daal wax dëgg yàlla man fan yi lii sama liggéey mooy nag wax dëgg yàlla di xool baat yi cant yi nag waaw bay yi mu nekk maa mhm. ngi cant yéen amin amin Mbàkke amin amin amin amin mhm. <laughs> loolu mooy jeexal wax ji ku defar taxut a jóg moom jot ñaanal mu yàgg fi euh, général Cheikh Ahmadou Kara Mbàkke Noreyni Al Khayit ñu ngi koy sant baax di ko gërëm Eh, di ko ñaanal yalla mu yagg ci loolu ti wër ndax bëgg gi sëriñ bi ak bëgg gi xaside ak bëgg gi ñi koy yëngu ndax eh, kum ci xol muy sëñ Ablaye Diop Bichri muy sëñ khadim Ndiaye Kaar muy sëñ salihu Samb kum ci gis rek bo xasse wax wenn bayit nekkutu fi nee na tollu toll moment xam sëñ Jibril dootuma mën a genn kenn kuy waxtaan ci xaside yi man ko tax mu ndax fam may yobbu motax ndax daram da xajul fi ci adina te sëñ Touba nak manam heure bu la ay mayam wala nga japp ne logiquement mënul ne tëleeg yàlla ngay wane tëleeg yàlla ngay wane lu sëñ xaarim wax yàlla neen mën naa rey gileem waaye du ma ko jaaxaanal waaye xaj naa xaja mën naa xajal gileem ci bën bënu puso nag waaw ki mën a jël gileem xaj xajal ko ci xam nga loolu logique nangu waaye gëm nga ne man na ko buñ la waxee yàlla gëm nga ne yàlla man waaye bu sëñ Tuubaa ne yàlla defal na ma jaxalta yàlla ma defal lii te danga balaa wax loolu da ngay natt diggante yàlla ak sëñ Tuubaa tawhid ji sëñ Saaliw sëñ sëñ sëñ ba noppi jërëjëf jërëjëf yëngal yëngal jataay bi mhm. waaye day day firnde rek gis nga eh, suñ Muntaxa moo mënta ñàkk ñu mel na moom mhm. lii bi mu koy taarif sax dafa ne woon da koy def projet mhm. tuddee ko al Muntaxa taxaa ak i tool man bi sax ne woon na ma yow chargé de mission nga ci loolu ñu def ko ay tool yi ba yut ko sëriñ bi nga xam ne moom vision wam moo moo moo moo sore lool ci diggam ak sëriñ bi te mu jàppee boppam serviteur ànd ak débiteurs yi waaw ak ak débiteurs yi <laughs> imagine yërmande jooju toog xalaat ni am na ñu nekk ci dëkk bi te xëy na mënuñuy euh, xéewloo ci ndawal mu ne damay damay créer ay ay ay débiteurs yi muy lakk gratuitement di jox nit ñi xoola xoola xoola yërmande jooju fu mu nekk waaye suñ balaa may ñëw suñ saaliw Euh, xasida gi sëriñ bi bi mu koy jox waa diwaan bi yaakaar naa ne doon na ko doon na doon nañ ko tekki ci wolof maa ngi maa ngi fàttaliku way xam bur yàlla tàbbal ñu lépp lu ñu mës a laal ci loxo yi ak ëggu mhm. tàbbal ñu nu mës a ci tànk yi ci tànk yi bal ñu lu nu masa xool ci bët yi ci bët yi te bal ñu lu nu masa déglu ci nopp bi ak nopp bi day day day pédagogie bu gaaw ñi nga xamante ni mënuñ jàng xasida yi ñu koy ñaan di ko di ñaanaane suñu borom mu jéggal ñu te te li muy wax tamit dafa am solo mm-hmm. gis nga récupérer gis naa bu yàgg boo xamante ne dañuy gars yi ku mënta bàyyi yi ngay jëfandikoo nga bàyyi ma cest à que dafa fekkoon sa à loolu la sëriñ bi soxla génération yi ñu récupérer leen teg leen raxas seen xol dugal ci sëñ tubaa ak xasida yi loolu nag suñ borom defal na ko ci tawféex tawféex ji ma doon wax ci ci ci ci sëñ wax ko ci waa Hizbu Tarqiyyah moom it am na ko ci centre de redressement dégg nga coow lañ fa coow yooyu yëpp waaye loolu da doon wane ne rek moom liggéeyam bi naka jekk mi ngi ci kon ndaw ñii tamit sëriñ bi soxla faw ñu jël leen am lu pratique yu ñu tàggaleek ñoom waaye nag boo dindee pratique yi saa dire que ci wàllu ci wàllu ci wàllu sevrage dañuy wax ni da ngay jox nit ki euh, alternative c'est-à-dire que nit ki boo ko sevre ci dara maanaam ku doon jëfandikoo da euh, maanaam ñollu walla dara nga xañ ko ko da nga koy jox leneen leneen li nga koy jox nag mooy lii mu am mooy jërëjëfe sëñ Touba mooy te tey ji mu nekk loo xamante ne lu universel la fu ñu ko tuddee tudd bëgg sëñ Touba euh, dama damay wax ne sëñ Mountakha lu ko waay mën waxal moom bëgg sëñ gi moom lu wér la kon nag foofu te it foofu nag la gars yi sëñ Mat Jaw Faxa loolu la daan wax foo la gars yi di di di rawante jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax sëñ Saliou dafa am lu ma bëgg indi jot naa cee laaj sax léegi euh, sëñ sëñ Xaadim cest dire que benn ngi nii lii ma li eh, xasida gi ni mu ni mu ñëwee sëñ bi wàcce ko niveau bi ba ñëpp ñu mën koo ñu mën koo jëfandikoo mu jàppandal ñu ñaani wan ñu ni nii ngeen di ñaanee nga xam ni eh, day am kilifa goo xam sax day wax ni bu leen jàngatee xasida yi ba noppi sax bu leen fa nekk di ñaan raayoo leen rek te dem ndax doo fekk ki la ñaanal li nga fay dem dafa dafa def leneen kon sëñ Sadio foofu rek ñu dugg <laughs> bi sëñ Xaadim santaat na bu baax ak sëñ Abdoulaye mm-hmm. ak sëñ Pape mu ko waxee mm-hmm. ci Cheikh Ahmad Ibn Ousmane taalif ko jàmbaar ji ñu doon déglu léegi nga xam ni la onze ji weesu di bi ñu taxawaloon ci Masalik sëñ mi mi woon ko mm-hmm. dama ko wax ci këram ci bëccëg bi ni ko képp koy liggéeyal sëñ tubaay góorgóorlu bu day ak yow dina xam ne am na ndey waaw yaay ki àngu doon ndeyu ndaw ndaw lu mën a jóg yëngu ci sëriñ bi di yitteem wala xalaatee rek mbaa xelam daj la rek dina xam ne am na ku ne ci ginnaawam te di jëf am ku ne ci sa ginnaaw daa gën a wóor waaw wala dañuy wax ni xer wa sàkket da cay daru waaw xer wi du bañ sàkket wi daanu muy dem fële bàyyi sàkket wi fii kon sàkket wi day daanu Cheikh Modou nag kuy liggéey sëñ bi nii la la def mhm. waaw xer wa téye sàkket da cay daru sëñ Modou bàyyiwul kenn kuy liggéeyal borom Tuubaa fu ne jaar na fa ak ñun ci teraanga mhm. fu ne foo xalaat rek jaar na fa ak ñun ci teraanga dëgg la te ba nii tey la rawati ba ko da ngay xëy rek ndawam ñëw waaw mm, waaw dëgg la da rek mhm. mu yónni ndaw lu gaaw loo xam ne da ngay jékki-jékki gis chiffre ci sa téléphone mm. bu la woowee wax bu gàtt la lay wax sëñ xaadim dina xëy jokkoo ak yow pare na ci yow da ngay toog rek waxtu woowa jot loola xew waaw la mënu daa wax ne dama leen a yoree li salaire salaire mhm. war leen fay mus ci teg loxo yàlla na ko yàlla yàggal amiin amiin moom moo leen njabootam maa ngi nuyu waale ju baax ja amiin maam Thierno Ibrahima Fatima Seydina Ousmane yàlla fi yàgg te amiin waaw li nga wax daf noo yàgga daf noo mës di plaider la Cheikhul Khadim moom Cheikhul Khadim ci borom bi plaider nag musul plaider yam ci ñi jébbalu ci moom xeetu sayyiduna Muhammad lay plaider ummatu sayyiduna Muhammad lay plaider xut ummatal Mustafa lay ولا عن كل مفسدة خذ أمة المصطفى في عما يجر لهم في عن كل مفسدة لبم دي بلاي دي جامي دينغ ما نكو واخ صح نيكو وانهم وين عسوك يا احد لغفلة لم يشركوا بك احد ديك ديك ديك ديك ديك ديك ديك ñun buñ ko moyee sax moom yàlla sëñ Tuubaa nee na ko même buñ la moyee càggantee tax waaye ñoom duñ la boole keneen kenn nga yaa ahad kenn ki nga doon lam yusiku bi ka ahad duñ jël kenn di ko teg sawet xam ne ni yaay seen borom dem ba koy wax wa innahum abdaanuhum laa taqdiru ala balaika xanaa looluy plaidé di ko wax seen yaram yi seen yàpp yaram yi abdaanuhum seen yàpp yaram yi laa taqdiru attanul mënul résister. ala ka sa bala li doon fin ngir faible faible. la tay tay wax bobu tay la wara a gën a qulubuhum laysa tamilu abada ila siwaaka min huna ila hada seen xol yi mësta jëm ci kudul yow yow yalla yaay seen borom leen nga wax walu ñaan waxuma mais walu ñaan. li tax am ni boo jàngee xasida ba pare jarul ñaan. moom ñaanal na la ba pare. ñun luñ soxla lu nuy jariñ lu ñu ragal lu nuy lor baatu yassir lana jamia ma yanfauna wa kuffana jamia ma naa xanaa doy na yow yàlla yassir lana boo koy wax da ngay remplacer sëñ Tuubaa yassir lana jamia ma yanfauna nag nu yombalal lépp mbooleem li nuy jariñ yombalal nu ko wa kuffana nga fegal nu جميع ما يدرنا لب لون ورا لور خنا لون رجلي نعيا ها موقف فين يعني يا من متى تقول لأمركم يكوني خاتب قضاء حاجتي بلفتك دينغا يو بروم بيغا خمني متى تقول لأمركم يكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فسبحان الذي بيده الملكوت يا من متى تقول لأمر كن يكني خاطب قدا حاجتي بلفزكم تمام لوم نيان يالا ماي نكو يوي مو نيان ييب يالا داكو ماي نخ ما باخي بجاه الراخي ما رمت بالقلب وبالاوراح سان بروم ومتال نما تي درجه رسول الله ما رمت بالقلب لما نيان تي خول تي غينيو مكو وبالاوراح اك لوما بين غين غيسكو ما نيان كو yàlla jox na ma ko malaka nii dunya wa axra laahu suuli wala ilaha illa allaahu lu ma ko laaj adduna jox na ma ko lu ma ko laaj alaxira jox na ko kon ñun ci biir ñaan gu nangu la nu ne boo nee xasida nee nga ñaan gu nangu léegi nag jëf joo xamante ni fi mu toll nit day julli ba noppi jóg rafet njortu dem waaye du xam ndax nangu nan ko sëñ tubaa nee na yàlla sama mbind mii na ko def mu kawe julli ñu nangu yi nga yendoo woor yendoo xiif def lu ndaw sakor koor gi jàllul validé wuñ ko sëñ Tuubaa ni sama mbind mi yàlla na kawe woor yu nangu yi ijaal kitaabatiya min dal yawmi fawqa salaatin qubilat wa sawmi wa sawmi ijaal kitaabatiya misla al xajji wa sawmi wa salaati ahli najji xasidaa ngóob ijaal kitaabati ka kulli mursali yaa man wahabtali ujura rusuli ca sama mbind yow yàlla na ko def mu tolloog yonent yëpp daraja wa bi kitaabati rabbi rabbi kulla mutaali an li wajhi rabbi wa bi kalaami wa bi isaara idil murida yatlubul inaara taxawal kii ngi wax ñaan léegi dafay wax ñaan sànq ba léegi mm-hmm. yàlla lu dul dem aras di yàlla mën na ko may ndax udoo nii stajib yi saalaka ibaadi anni wa inni xaribun ujibu daawata daay mhm. walillaahi asmaul husna fadoohu biha am déet mhm. kon yàlla damaa xamul sax dama foofu dafa am question bu ma fay laaj sama bopp nag laa koy laaj mhm. xam naa ni mënuma koo tontu waaye damaa xamul Cheikh Ahmadou Bamba ñi ko jiitu woon di ay way baax li mu doon ñaan yàlla la seen xel yi dajul wala bu ko seen xel dajee xanaa seen fita ko ñemewuloon a génne <laughs> maanaam ma ni Cheikh Ahmadou Bamba laa wax waaw li mu doon ñaan boroomam li mu osé woon di ko ñaan boroomam moom sëriñ tubaa ci xasidaam yii li mu osé woon di ko ci ñaan yàlla dama ne ñi ko jiitu woon ñu baax ñi seen xel moo ko dajul woon wala seen fitte ko ñaanul woon ñaari benn am na ci. question la. question la. tiim am mbind waa taxawal déet. tiim am mbind tiim am mbind. <laughs> ni ko na tolloog sa yonent yëpp dara euh, lu jar calcul la. Euh, euh, nit ñi yonent yi ñoo ci gën am de. nit dina doon yonent ba noppi du doon mursal de. Mm-hmm. nit da doon nabi te du doon mursal mm-hmm. mursal beneen grade la ci kaw nabi mm-hmm. mu ni ko ka kulli mursali sama mbind mi na tolloog daraje yonent yépp parce que amul fu mu waxee xaw ko sax yaa ma waxabtali dégg nga li mu ko wax yaa man yow mi nga xam ni nanga ma defal sama mbind mi tollook yonent yépp daraja yow mi nga xam ni yaa man yow mi ma jox bu juura rusuli mbollem ñi nga yoni won seen pay yi amako jox. eh way ndaw sa da nga wax nak sank si ñam lu am solo. da nga wax bam yag rek mu melni dañ la rof baat nga ni digganteem ak yàlla. digganteem ak yalla li fa am. ku mu am ci sa agi ak yalla nga mëna a plaider. dëgg waaw. xam nga lu fa am. waaw Seigne Jibi mi amna décision bu muy jël ci kërëm neexul njabot gi du nu woowi magam du nu woowi rakam. xaritam la ñuy seeti waaw wax nga dëgg waaw nit day décréter ci kërëm dara du ñu seeti magam duñu ñu seeti rakkam ab xaritam la ñuy seeti mhm. xarit moo man ca xarit ba lu ne mhm. est-ce que yéen a ngi dégg li ma bëgg a wax. waaw yow rek yow kay. waaw léegi xarit lu koy tax a doon. fu mm-hmm. mm-hmm. mu toll ku ci ne ci ñun ka nga gën a xaritoon ci sa kër mooy ka dàq jëf la nga digle ka gën a bàyyi la nga tere wala. waaw mm-hmm. Cheikh Ahmadou Bamba lii la def ba doon xaritu yàlla. jëf lim bàyyi la muy. waaw ka gën a sori la nga tere sa kër ñun ñii rek nga xam ne ñun ay nit lañ buñ ngéntee sax léeg-léeg ñoo xëy bëgg koo nett li muy të. sunu kër yi. ñi fa nekk moo xam ay soxnaa ki doom la mm. moo xam lu ay surgaak ñu mën a doon ka ci gën a jëf sunu mm. suñu li nu bëgg gis nga fa gën a bàyyi li ñuy wattuloo loo kër bi mm-hmm. kookaa gën a doon sunu xarit dëgg la mm-hmm. tax Serigne Touba gën a doon xaritu yàlla waaw doon waxe ku bëgg la nga mm-hmm. xarit nag day changé dëkk xarit ba ndax dégg nga ma xarit day changé dëkk xarit ba moo taxoon ngay dégg mu naan diw foo bëgg a faatoo te alxuraan wax na wa maa tadri nafsun bi ay ardin tamutu mhm. xanaa du yàlla na ko wax mhm. kenn du xam fooy faatoo mu ne diw foo ko bëgg a defee mhm. sëñ Masamba Diop Samb la ko waxoon foo ko bëgg defee parce que mooy xaritu yàlla moo na ko moo wax wallaahi inni yaqillun avant am na fu mu ñu joxoñ xasida moom loolu wax ni loolu ma ngi ca li may wax ma ngi ca xasidatu laxat jaakum hmm. wax ni aqsamtu billahi hmm. dégg hmm. inni li nabi abadan xillun wahibun hibbun abahu ya abaahu yaabaahu maa ngi giñ ci sama borom ni eh. man mii Ahmadou Mbacke miy wax maa doon ci yonent bi faw xarit ak soppe lu ma bañ rek la bañ nabiyina Mustafa xayrul xaradi fi kulli shay'in wa maa yabaahu wa abaahu li ma soxla mooy baat bi ma soxla mooy baat bi ma jëm xasida yi lan la mu ni tara qasaida tawhidi li malikina sawaahid al xaqi man hatan li man baahu dégg nga tara xasaida ndeke xasaayid tawhid la wéetal yàlla la tara xasaida tawhidi li malikina lu loolu suñ bàmba mu ni sawaahid al xaqi seede waa ko nu dëgg man hatan li man baahu tere ko puukare daal cay teg ni wallaahi inni yaqillun lil ilaahi bihi ibun lahu duna kasbin fihi ujsahu wallaahi maa ngi waat man ahmadou bamba ni inni naka man ahmadou bamba xillun lil ilaahi maay xaritub seen borom ab xarit nag sañ naa changé décret xaritam li taxoon mu man li mu man ci saayir lii sëñ xaadim doon wax ni boo ko waxtaanee ci moom ñi lay weddi ñooy ëpp ñuy noppi waaye day xarit rek nag. affaire bi daa garaaw waaw ba mu doonee xarit la loolu yëpp valable ci moom. ba mu demee ba doon xarit. ci boromam la loolu yëpp valable ci moom moom Cheikh Ahmadou Bamba. moo tax mu doxee noonu mu doxee ci diggam ak boromam gaa yu baax yi fi jaaroon yëpp ay liggéeykat lañu waaye bi mu ñëwee daf ni man la yàlla teg ci seen kanam. qaddamani llahu ala alqudaami bil muntaxal musabbitil aqdaami وغني نيوم نيب سين باي يالا جوخنا مكو خست مواهب الكرام ترى لدى تغربي كفاني سرا كيسا ما تمر رانك غلما يالا فغال او اي وغني لونو ما زونا جف نوي او يو نيوم نيفي ما زونا جار تا ادم با تي مان كوفي ما سي جف او يو يالا ريترابيل نماكو بما جف كو نيما كو جفه xam naa bu kàddu ñëwaatee rek. waaw déedéet macha allah. ba li nga def nii kenn du ko def affaire bi du nii maanaam dafa war di neex du nii daal ni nga koy defee nii yow tamit. teg ko ci teg ko ci yoon xadamalillahu ala alqudaami ñëwaatal foofu léegi léegi ñoom ñëpp ku ci nekk nag am nga lool sëñ tubaa moo confirmé ne bi nga koy am yonent bee tax najaa bihi llahu noohan safinatihi wa jaahu kaffa yaaqoobal baliyaati Mustafa akhrajal mën yusuf min dool ma fofu doog ma door a ñëw ci sëñ Ablaye. ndeysaan da nga bax rek. waye fi mam adam la ko hmm ndax suñ tubaab daf ñoo wax sax ni. Hmm. usjudu li adam sax. Hmm. rasulullah tax. Hmm. cee. leeru njool makka ga yalla def ci ndigi mam adam mo tax yalla ni malaika yi li la. suñ tubaab li nuruhi sajadat أملاك أملاك مرسله للجر آدم طيب، نورا فيه منقطما تميمية صلى الله عليه وسلم آدم ما نعم، آدم إبليس فخ بمو جين مفوفا عجنا جمو نكون سنتوانا أنا يعني بكو يالله جيجلي سجراس أسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاهه فاضل بالغفران آدم من بهد هبات من انهار وجنات يا انا واتي تي كو سوف با بي ابليس سا سو نيك دا نكو نويو جيم كو ديفلوتي اب سفان واي منوت كو ديف سنتو با نانا سي غراس ا سيدنا محمد يهي لم يمل للذنب ادم موس له داه اللعين من قد عزما صلى الله عليه وسلم سنتو با نانا سين غناو نوهم بو غال تيري تي درجه نجول مكه toftal ca Yanqooba jooy na doom ja ñeent fukki at sil ma xanaa lu mat ñeent fukki at Sëñ Tuubaa nee na bu gis ba delloo ca moom c'est grâce à lui sallallahu alayhi wa sallam najaa bihi llaahu nuuhan bi safinatihi wa jaahu kafa yanqubal baliyati najaa bihi llaahu nuuhan ca mi mu yeba bi safinatihi wa sina yanquba ama asbatu ka ama sallallahu alayhi wa sallam <laughs> maam Ibrahima ba ko Namrud mbaqee bàyyi mu jëm ci sawaras yi سين توبا لينا بوسا برام ني خولنا يا نار كوني بردا وسلام على ابراهيم سيغراس رسول الله به قدت نار ابراهيم باردة مع السلام فهذا اقرب عادات به قدت نار ابراهيم باردة مع السلام ومن كيد العدا سلمى صلى الله عليه وسلم كيد الهدى سلمى عليه الصلاة والسلام يوسف تشتان با اك جنم دم ني ادابتي كو فلي سيغراس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سين توبا نينا جناتام تي كاسو با تي بالي با don wasiiru dëkk ba ba nopi don yonent c'est grâce à sayyidina Muhammad bil muntaqa axrajal manan yusuf min jubin wa min kaydi man an wala ma loloy ten ba bil Mustafa kasoba ba axrajal mannaanu yusufu min sinil matini wa min tilkal qiyabati sallallahu alayhi eh, wa sallam Souleymane dadaa war ngelaw di dawal sëñ Tuubaa nee na c'est grâce a Seydina Muhammad Daawuda dadaa def weñ mbubba mbubbi koŋ ak i dàll di sol sëñ Tuubaa nee na c'est grâce à Seydina Muhammad bihi ulina li Daawuda al hadidu bihi hawa Souleymana tasxiran kama fuhima léegi la am ku fi tudd yaakaar naa yoru sax 40 jours ya ca profondeur ca mhm. bu ko yàlla génnee yaram wa suppiku يلا سخال غرب مو بوكو يرام ودل نملون سن توبان سغراس سيدنا محمد وصاحب النوني للمولى تجا فنجا فنجا بالمنتخى فلنها كل قمتي صلى الله عليه وسلم سن توبان وموسى خري بهرو خلصوم جال فراونا دس تي درجه نيول مك صلى الله عليه وسلم bu buñ ko dàqee ba war koo jàpp daaj ci croix bi yàlla ak jëmmam asamaan remplacé ko ñu daaj kooka c'est grâce à Sayyidina Muhammad bin Mustafa bahru Moussa kanamun falixan fan falaxa jëlay kama mhm. bihi ruuxu Isa mhm. li sama isama sallallahu alayhi wa sallam xanaa doy na kon <laughs> jërëjëf sëñ Saliou eh, rek war na ne nii mhm. ku mës a ñëw ci suñ borom rek da ngaa dikk sa kaas sëñ Ablaye mu xelli la nga naan moom mu ne ko kaas ya ngeen man ya nga leen mandale ci man mandale man te ni nga ma mandale daa gàccal ak gaal ya daw ku uusu ko taskhini bi hadha busharatin wali qut faydan ax jalal bahra wa fulka hmm. cheikhul khadim ay mayam muno ko tak fu mu tàmbalee mënoo ko tak fu mu yem waaye sëñ Ablaay buñ ñëwee ci titrage khasside yi fi ngay xamee yërmande bi xolal dama bëgg ñëwaatal ma ci titrage maanaam film boo dem di ko seetaan ci cinéma. titre film bi moo lay may nga dagg bee dugg. parce que titre bi lañuy ñuy joué. xasida gi boo ko tiimee titre bi rek. yow li nga bëgg lu nekk fi ne nii loo loo aajo joo am xam nga xasida ga ko man man nag karam naa mooy sama préféré. man sëñ Xaarim karam naa ni may def. Eh, kéem taanu suñu borom la. ndax xasida gi ni ko sëñ Touba Aana Baana. Eh, yasir rujoohi li Touba wax mi nii waxi nii. azal wara wal tutib lii samma iskaana lakka sama wal aradi wal hawa ubila musharikin li yarul man sirkuhu baana maanaam xasida gi laataa may xam kii bi sax maanaam daf maa neex noonu rek lé balaa ngay xam nag maanaam ku ci ku am wërs ku bëgg war wërs xam nga xasida nga ngay jàngi mhm. gaa ñi bu ñu bëggee kaaraange xam nañ nga ñuy jàngi mhm. gaa ñi buñ bëggee mucc ci cat xam nañ nga ñuy jàngi mhm. gaa ñi bu ñu bëggee texe léegi ni titre yooyu laa ba nga ñëw ci ay saadatul muridin ay nuru daaree ay jaalibatul maziyaat hmm. jaalibatul maraaxi bi hmm. ah ay wa kaana xaqan titrage yi laa bëgg nga ñëw ci eh, ñëw ci nga xam ne eh, tey lenn lu ci nekk rek ba mu koy wax nag moom taxul ndax laataa muy jege Mbàkke Baaru Jolof yàlla nee na ko li nga may ñaan yëpp may naa la ko hmm. waaye nun la sëñ Tuubaa taxoon ñun moo taxoon suñ tawféex jee taxoon moo tax li sëñ si Muntaxaa naan dañoo mu nekk ci xaasu titrage yi laa bëgg nga ñëwal ma ci waa kay jërëjëf sëñ wax nga dëgg ñu ngi sant généralu Serigne Touba bi. Mhm. Mhm. ci wooteem bii nga xam ni euh, lu nu neex la lu sedd suñu xol yàlla na ko yàlla yàggal euh, teraangaam buur na ci sunuy kër buur ci sunuy loxo. Mhm. ñun ñuy yëngu ci sëñ Touba ñëpp nii lañuy defal léeg-léeg sax ay euro la ñuy may. loolu lépp rek ngir xërëm ci sëriñ bi ak bëggam xasaay bi. te xam ne ñu ngi xëy ci toolu sëñ bi di ci gont te moom sëñ bi rek lay dund. yàlla yàlla yàggal ko. Mbacke Balla sax kontaan nañu loolu ci wooteem bi encouragement la ci nun soññee la ci nun ñaan la ci nun nu mhm. lay bëggee fu nu toll di la ñaanal fu nu toll di sant euh, Serigne Saliou ci duggaat bi mhm. di sant sëñ Pam njaay ci wooywu neex wi jëf mhm. yàlla na yàgg euh, sëñ Hamidou da ngaa wax léegi lu am solo moom nga tëje bi may laaj-laaj bi muy tiitrage xasaay di sëñ Tuubaa yi da nga ni moom bi muy dem di jógee baari jolo Jolof dem ñun a tax waaye moom nekkatut pour moom. Mhm. loolu li koy firndeel soxna Faat Ja Ture Mbàkke moo ko nettali taawam. nee na biñ nee suba la sëñ Tuubaa dem guddi googu daf leen a woo dajale kër gépp ñu daje. Mhm. mu génne ay kaasi xolar kaasi xolar yooyu mu daan xellee. Mhm. mu génne ci yu bari ak ay baraada. mais di waxtaan ak ñoom ci góoru yàlla yi fi jaaroon kenn par kenn. kenn par kenn xam nga sëñ Saliou laaj na ko léegi laaj bu am solo. ndax ñoom. dañu mënu woon ñaané ni sëriñ bi ñaané mhm. wala dañu am luñ fitu ñaan lool lool lu am solo la lu mata sétu la waye da fekk ni sëriñ bi la tan ngir mu wara xétali ci jamono moo sëriñ bi li yalla yàlla yenkewal ba man ko ñaan yalla kèn du mëna xalat loola sëriñ bi dégg gi mu dégg yalla pour ñaan ko la kèn amul ndax yarantu bi waxon nañu sallallahu alayhi wasallam julit war nay ñaan yalla ba ci dalam wi fil bi mu koy takke sax bu mu ko jomba ñaan yalla ndax yàlla tëlewut dara lepp la man jëmam dal la deful kenn ngay yalla mo waaye bu dut lool lepp man nako may jam kon lu am solo nga lacc mhm. soxna fat Ja na guddi googu muy waxtaan ñu ci nitu yalla yi kenn par kenn ku fi jaarul mhm. nee bu guddi gi sori lool sëriñ bi ni ñokket dal di dem ba tolloog mbaar ma ca mbaar ma la dem genn fa bi fajar gi di jot ñu wommatal ko fas yi mu ñëw fasam woo tudd awnullaahi ñu ci mbalaanu sooy yu vert nee na déggali fas wi daa mel ni nikel mel ni xaalis weex tàll nee na sëriñ bi war di tàggatoog njaboot gi ni li ma leen doon wax boobu ba léegi dama leen a bëgg a waxtaan ak yéen ni leen bu leen am njàqare ci sama dem bii bu leen ci am njàqare bu leen ci am tiis sunu boroom mi ma sàkk mhm. te sàkk ñépp mooy yëkkati bi yanam te yan bi mu yëkkati ku am bopp nga àttan ko nga ñàkk koo àttan teg na ko ci sa mhm. waaye kenn àttanul yan boobu ndax kenn mësu koo yëkkati ba mu àgg ci say woom man ahmadu mii maa ko fas yéene yëkkati ni ko dangiñ yëkkati ba àdduna bépp di ko séen mooy sama dem bii ni bis ni ki tey jii ma taxaw di tàggook yéen fekk buurub àdduna mhm. boo xam ni ñépp a ko wegoon ragal ko lu mu santaane ñu def ko mhm. ma folli ko ba kenn dootu ko xam mo gëna yomb ci man julli ñaari rakka fekk ko xamni mama musta yoni kenn mu dem ngir ñàkk daraja ma fal ko ba aduna bépp di waxtane mo gëna yomb ci man julli ñaari rakka kon wilaya taxu may dem fekk na ma am ko sekk waye dama bëgg bis niki tay tukki bi ma jëm ak yalla sama borom bu dootuñu mën a tàqali ko taqoog yenantu bi alayhi salaatu wasalaam ba kenn dootu ñu mëna takale ma melni ashabul badar ni ñu mel ci mom li moo ma tax may dem talal len loxoy ma ñaanal len kon wax nga deug bi mi dem mhm. ñun la bëgg dimbali mhm. oo tax mu wax waxam joju nga laccé lu am solo muy xasaa mhm. mom dem ni mi bindé arab ni lay titré war titré azam du yem ak kenn dafa am kenn ca Mauritanie ndax Mauritanie lañu yak yàq touba ci ay tag gisuguma senegal ko ko wax ñom lañ ko yag yak ci ay tag motax bu senegal bare ciow rek lo wax ñu ni diw daa sama kilifa ne len fi ñuk dem ba Mauritanie duñ ci man dara déedéet ndax koo ni sa kilifa nee na nangam sëñ ju lu ci rafet mu mer da nga hmm. leen fi ñuk dem ca ña nga xam ne sët lañ ci yanant bi te dégg arab lool jekk ko te wax lu ne sëñ Tuubaa hmm. dafa am ku ni ko waman yusaawika wal asiyaaqa martabatan fa kayfa yadri min ayna tookalul katifu xustal xisaal allati tasmu rijaalu biha lakinnahu qad kafaaka al ilmu wa sharafu <laughs> yow seigne Touba. ku lay tëkkale ak kenn xamul fumuy taxaw xamul fumuy djublu dafa réer xamul li xew kooku nandaluñ ko amul information ku lay tëkkale ndax yow luñuy ñuy tagge yalla yàlla laxas nga ko làq nga ko ci sa borom làq nga lepp jikko yi ñu daan nitu yalla wala ab yanantu lépp nga tey sa loxo njub képp doy lo njub doy ci njub rek nga nek ak xam-xam ak jaamu sa borom am keneen kok bim koy tagg dañu sëñ Touba dafa nangu arab ci nun xam nga fi ne nii boo nee diw dama ni dañuy arab arab bi ñuy làkk yanantu bi jaar ci namp ko nun arab yi ñoo wëlbati ko nangu ni sëñ Touba nangu arab ci nun làmmeñu arab nangu na grammaire bi mooy annaxu nangu na luga mooy vocabulaire baat bi nga xam ne muy firi ci arab mhm. nangu na assaqa moom mooy texe mooy mooy euh, tabe nangu na al jóot mooy loo yor man koo maye te yàlla tax yooyu yëpp sëñ Tuubaa danoo fekkoon ñun ñu ciy tagg suñu bopp ñun arab yi mu nekkoon suñu appanage mu ñëw nangu ko ci ñun ko ku ko bëgg te da ñëw ci sañ Tuubaa langue arab dëgg la mhm. dëgg la dani al lughatu ilmul arabi mhm. wal joodu wa saqaau indal siimatahum fa zooruta bi أحمد بامبا من على بيروتبي نجل حبيب الله زوت أدبي فصلب الجميع أي صلبي منهم فصاروا معه كالقصبي إلا عصيرة نبيل أنجبي نيكو أحمد بامبا يا أقا أفا يحل لك ظلم العربي بأخذ النحو إن وأخذ الأدب وأخذ جودهم بغير ودب ndax togn da fay yell ci yow cheikhul khatib seigne bi niko man duma togn mu ankay fekk gor soo xam ne ñoom ñoo jëloon seen làmmeñ nàmp ko seen ndey nàmpal leen làkk bi ñu jaar ci jàng ko nga nangu làkk bi ci ñoom mhm. ku bëggati làkk bi ñëw ci yow mhm. di wax lu nu xamut di indi baat yoo xam mësuñu koo jàng mhm. gën noo tabe raw nu fuuf yaw daal kenn nga fi bàyyi muy yarant bi moom rek nga war maal ba ko ak njabootam waaye ku dul kooku rek roppi nga ko lii moo tax nga ñuy tooñ lii la ko naar bi wax moo tax sëñ Tuubaa tiitraasu xasidaam du nuroog benn xoolal nooru daare ni tiitras am boo gis ci xasida ba mu jaaxal la ba nga jëm ko firi man nga nelaw ci bir titrage rek waaw man nga ci nelaw ndax moom waxam da koy codé ñu dul mag ñi nga xam mo leen yar jangal leen bopam gëreem leen du ñu mëna dégg sëriñ ndax waxam da koy codé sëñ tuba dafa codé ay waxam waaw euh, sëñ Ibrahima Diop al Mashari nee laq na ci boromam may go xamni ku kudut mom, ak yalla mi ko jox nelaw nga ci bir may gi xamoo ko dañ cee nelaw neen xat raqa la wax da ngay nelaw ci ci titras yi xolal nuru daare ni nga xamni nuru ni laaj na bis mag ni nu ngeen koy firé bo jangé arab mëno ko firé luddul leru leeru ñaari kër yi aduna ak alakhirah ni bamay wax ñaari kër aduna taxul ndax aduna du kër dal ni aduna fasu naaru góor la wo xamni nit ki saa su xëyee diko yafal ta du war mukk Mm-hmm. aduna fasu naru gor la wo xamni doomu adama sa su xëyee di yafal te du war mukk àdduna mbaxalum xeer la mo xamni ñi njëkk soor ak ñi mujjë soor kenn du ñorle hmm. kon Abdul du kër damay wax kër àdduna juk aljana ak safaram lo rek kër dal ni kon suma ne nuru daare ni moy leer gi nga xamni day ñot hmm. di ki jang diko di ci safara diko tabal ci aljana kon li la nuru daare ni fi bobu titre amul won fenn xolal téré bu melni wasilatu rubuh nga xamni ni ku nek tolawu nga bëgg bénéfice nga bëgg ñu fay la rek nga am ba déssal ba am boña mhm. mu li nak jokku kay la bo xamni képp ku ci jaar danañ la dana la jokkale nga dem ba am ay bénéfice yoy am sa ak sa borom mhm. ba paré feeñal ci lo xamni kenn musu ko xam wala bok man ñima jang kenn bindu ko wol ndax ashabul kahfi buñ ca delloo ci alxuraan yalla lu mu wax sa yaquluuna salaasatun raabiuhum kalbuhum mm-hmm. wa yaquluuna xamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bil xaybi mm-hmm. wa yaquluuna sabatun wa saaminuhum kalbuhum qul rabbi alam bi iddatihim maa yalamuhum ilaa xalil mm-hmm. falaa tumaari fiihim ilaa miraan zaahiran walaa tastafti fiihim minhum ahada kon xamuñu ko woon am na ñuy wax ne ñett la ñu xaj baalin ñeenteel la yàlla wax am ñu ni ñeent la ñu xaj baalin juróomeel mais jankat yi li tax ñu xam ne yoy yooyu yalla yàlla da caa teg rajman bil ghaibi bi rajman moy tandalé la def ci ghaibu yalla yàlla dañuy tànda kuy tandalé xamu mu tek ca ni wa sabatun am ñu ni sabatun juroom ñaar lañ wa saminuhum wa samaani ja kon juroom ñatt wër xajba ak juroom ñaar ya xajbay khitmir seigne touba rek ngay jang téré wasilatu rubbo mo indi ci seen tur ñom ñep ñom mukseli sa sazano sak dabarno sak kasaftat yo sak xit ñom ñep indi da ci seen tur ñom juroom ñaar ñak seen xajba Lol di wane kon téré bu doy waar ngok te señ fallo ni won ko sa aajo fajuul ba nopi do am téré bi kon am téré gi pajuk aajo la mi mhm. wasilatu rubbah nga dem ci téré bu melni duru samin xola woowu titra duru samin waaw <laughs> nga xam lepp ci salatu ala nabi la ko def julli ci mhm. yanantu bi rek mhm. tudde ko wurus wo xamni dafa sel cher lol ñu tok ko ba mu ñor wurus wi mu cher pure lol mu tudde ko duru samin nga dem ci téere bi tudd Fawzul Mutiin mu def ko salaatu ala nabi muy firi texe kii topp yàlla ndax kii topp yàlla faaw yàlla texel ko ëllëg fay ko mhm. lii ak texe la ñëw leen julli ci yarante bi tudde téere Kanzul Muhtadin Kanzu muy firi banque mooy trésor sa ñëri am sa ñëri aw kontaan na tey kon Kanzul Muhtadin ñii jubal tey góorgóorlu ci njub lii mooy seen banque fi la ñuy fay ko ñëw leen ci julli ci yarante bi alayhi salaatu wasalaam mhm. xool xasidaam bi tudd salaatul awliyaa yi murit yu bëri xamuñu ko fi salaatul awliyaa yi nga xam ne kii mooy julli bi nga xam wàllu yi ci la ñuy jullee boo koy jullee léegi nga bokk ci gaa yi waxuma la jege suñu waaye bokk ca gaa yi ca ngay bokk te julli yanant bi benn la ko def xoolal loolu xoolal téere bi mu tuddee am na téere bi mu tuddee nuzhatul ansiq xoolal boobu téere bi mu ko daawee nuzhatul ansiq nuzha mooy firi ci arab promenade mooy nuzhatu muni nak ki nga xam dafa sopp yonent bi ba jeex ci tak téré bi defal nako muy nek rek promenade dam nga xam da ci jaar di jaar lu mbeug xam ci bi xam ko kon nga xol matlabu matlabu shifaa yi képp koo ni da ngay def requête di sakku ji ak safara ñewal jaar sama téré bi saafara bala taxé ju nga dégg safara si nak ñaar bu ko jappé rek saafara jangor soxla bu teewo faju sax am lu ko mëna safara boy jang mafatihul bishri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna ma faati xam nga arab li mu wuuteeg làkk yu bari bu dee français rek nga jàng la clé la ñuy wax mooy porte la clé caabi porte eh, caabi bi ci porte wala bu mu mën a doon clé la tudd ci français geex na loo jàng-jàng dañ naan c'est la clé jox ma la clé nga xam ko bu dee anglais the key ñu xam ni taa caabi nga laaj bu dee langue hindu ñu ni caabi comme olof nga xam ne caabi nga laaj bu dee espagnol yaabe nga xam ne caabi nga laaj làkk boo mën a jàng rek benn baat bi la am mhm. nag dafa am buy def iftaax lu lay ubbil mhm. am buy def iqlaaq lu lay tëjal mhm. léegi nag bu ne daa am tur miftaax mooy bi lay ubbil caabi boobu miqlaaq mooy bi lay tëjal caabi la caabi bi lay ngomb sëñ Tuubaa wi ne wutal na koy tur miftaax ak miqlaaq mu indi jamoo bi mafaatix def na miftaaxul maxaaliq da ngay dégg maxaaliqu niiraan mhm. lii moo leen di tëjal ay bunti sawara yëpp mafaatixul jinaan lii moo leen di tëjal buntu àjjana yëpp mafaatixul bishri kii moo leen di ubbil buntu mbég yëpp mhm. wal am ni ak sécurité lii ñu soxla mhm. ci réew mi kóolute wal janna ak àjjana nag kon tiitraasu sëñ Tuubaa sama mag ji wàcc liggéey démb maa ngi koy jaale senegal gépp di alaaji Taala Siise bu Cenaba te yàlla mayoon ko lool ci xam-xam ak waxtaan hmm. sama mag la sunu ndayee bokk baay hmm. dafa daan wax loolu dañuy sëñ Tuubaa hmm. man euh, mu xaddam laa ci canaba ci kilifa waaye damaa nangu ko yàlla jox cër bu fa masaa ñëw mu wax ni euh, sëriñ Tuubaa ku dul moom moo la gën a rafet le turi dëkk gën laa rafet le turi xasaayit ak turi doom waaw loolu da daan wax lu bari kon turi yit la gën a rafet le ñëpp dëgg la ak turi doom ak turi dëkk mm. waaw loolu alaaj taali si daan na ko wax nu mm-hmm. ngi ñaanal tam soxna maam say mbàkke bintu cheikh mouhamadou lamine baara mbàkke borom guy ñëpp moom it wàcc na euh, di wéyjuru sëñ basiiru jaxate borom ridaa ñu ngi ko koy ziyaare bu baax ak waa kër sëñ baara gépp waaw muy tiis wu rëy ak mbokki jullit yi fi wàcc yëpp ndax léegi dee moom dëgg la defe naa sëñ Hamidou saa suñu xëyee rek dégg ko kon ñu ngi ñu ngi koy ziare ñëpp waaw ah, di wax nag ñëpp daal ñu waajal la onze bi dëgg la te góorgóorlu ci dëgg la waaw ah, te fas yéene nag mhm. waajal bi bi ko sëñ Muntaxa wootee na mhm. nanu xam ni dafa bëgg nu sellal ko mhm. sellal gi mooy jàng alquran jàng xasaayid yi ku ko ci mënut nga téye sa kurus di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di def istighfar di tuub Mhm. di def salatu ala nabi di julli ci yanantu bi di def alhamdulillah di sante seigne Touba jërëjëf seigne Touba mhm. yoy yep dal di toroxlu sunu borom ñaan jamm ci rew mi ta ñaanal ko mom mhm. waye bañ ko def rek lo xamni folklore lay doon wa yoy du am ben solo wa deug la kon ñu daanil sunu kàddu jërëjëf seigne Ablaye seigne Jibril wa ni nga baxal ñu muntaha seigne muntaha wa seigne muntaha mom Euh, ñëpp xam nañ ko fi mu ne dof bi gën a tuuti ci yoonu bi sa boo ko rombee mu ne sëñ Muntaxa kenn la ñëpp xam mm-hmm, mm-hmm. te loolu li ko may mooy meloom sëñ Muntaxa bëri na yërmande lool yërëm na jaam ñi parce que noonu la tooge dafa nekk xalifatul laahi fil ard mm-hmm. dafa nekk xalifa sunu boroom ci kaw suuf si moo tax ñëpp la yërëm xam na ne njabootam la sëriñ Muntaxa xam na ak nite lu am solo ngoog léeg-léeg kilifa yilif ñëpp waaye du mën a jëflanteeg nit ñi ci nite moom ndax jàngoro jii bi mu nuyoo. xam na ne réew mi ñoo ko bokk. Sénégal njabootam lañu mu jël koppar yu bari dawal ko ci. loolu lépp day wane ak nite. léeg nga gis sax murit bu mel ni man. taxaw naan man eh, defuma dara eh, mesure de barrière yi ñuy jël loo takkuma nangam mais bu fekkee da ngay roy ci moom moo la gën a jege sëñ Tuubaa ndax mooy sëñ Tuubaa moo la nag gën laa yàgg ci jamono gën laa xam ëpp la xam-xam ki muy gisantel di diisoog moom doo ko gis waaw moom suy takk maskam yii ak di laal gelam bii bëgg na ñun ñëpp ñu roy ko ci loolu loolu moo dignité mhm. kon sëñ Muntaxa taxaa ngay gis ci moom nite gi mhm. gis ci moom xam-xam bi ndax waxal na boppam ñëpp di ko dégg mu nii bi ma jàngee sama diine ba xam ko lool damaa dem sóobu ci njàng sëriñ Tuubaa dañ koy jàng mhm. ba fa lillaahi alhamdu ñëwuma ci ko yàlla bind lii la wax kon moo nu gën a xam diine gën noo xam sëriñ Tuubaa bi mu jógee ci loolu mu tarbiyewu ci taalibe kuy magam gërëm nga ko kuy bàyyam gërëm nga ko loolu senegal gépp seere nañ ko këru diine yëpp mu am lanteeg ñoom ëmbal leen aw yiw ñëpp a ko sopp ñëpp a koy ñaanal réew mépp temporel ak spirituel ku nekk mu jëflanteeg yow ci jëflanteeg jullit ak moroomam ci lu rafet ku ne mu jox la sa àq mm-hmm. mag ñëpp te gën leen a yaru ñi mu siqal sëñ Tuubaa mu ne ñooy samay sang ndax yàlla naa tal kan, xarnu bi mbeg maa nge teeru leen basir doonay e. basirun wa nasir ku teeru naan lekk ba suur du xiif du mat ci xarnu bi nag dégloo leen mën a jariñu dégloo leen mën a rawatina ñi tudd gi mu tudd tudd sëriñ bi te ma toog kon war na ma wax moom jalaal te am jamaal te xarkanam baaleer xamaal te bari xam-xam ak xalaal kabi ci xarnu taar ba ca Yuusuf al Karim mu fal ko def ko doom jigéen sagoom mi ngeeg basiirum xarnu bi ci ak rawam la daal raw fóore yara fi ree karaw te mus ci yëfi ndaw mës la baale xarnu dama war a wax fii ma fa mag ña daa àgg na fa romb naa sama juróom ñett na ngirum tasawuf na la wif moo baayam la nuru rek mhm. ci lépp mhm. defe naa wooy woo ngeen dégg sëñ Moussa Ka wooy ko sëñ Bachiru ci xarnu bi mhm. war na ni sëñ Muntaxa moom baayam la nuru ci lépp baayam sëñ Moussa Ka islaahu zaatil bayn la ko doon tudde moo daan yéwénal diggante yëpp sëñ Bachir fi mu ne bari na ci yoonu murit yoo xam ne duñ ko waxtaanee ci pénc Mhm. waaye yëpp liggéeyu sëñ Basir la ci bari. Mhm. te lu ñuy waxtaane ci biti. ndeysaan ngir rek rafetalam gu mu rafetaloon. wallaay ak fonk gu mu fonkoon ay kilifaam. Mhm. diggante sëñ Modou Moustapha Serigne Fallou. sëriñ Baara ku ci nekk mu am alaaxa bu rafet ak yow. am kooki rakkam. di taxawaay bu ne mu taxaw ko. daan wax ni du ma nekk xalifa sëñ Touba moom sëñ Bachir. buñ ko mësee wax am ah, Mbàkke loolu nag mu ne yaa ah, wax dëgg dara nekku ci waay. du ma nekk xalifa sëñ Touba waaye ñëwoo benn xalifa. ndax sëñ Touba ma jur jàngal ma yar ma. kon nag sëñ mun Muntaxa dafa toog toogaayam boobu toog toogaayu sëñ Touba. te it bi muy ne bi ñu koy junj ni mooy sëñ Touba. boobu sëñ Abdou Lahat a fi nekk dëgg la ndax sëñ Mor Mbay Siise ma ca njaarim wàllu yu mag woowu moo ni woon sëñ Touba moo ni ko saa soo génnee àdduna maa lay jullee si lii la ko sëñ Touba waxoon 88 mu génn àdduna sëñ Abdou Lahat ni ana sëñ Muntaxa demal jullee ko mhm. kon booba la ñu junj ni mooy sëriñ Touba mhm. kon sëñ Muntaxa topp nay baayam toppi magam ba làq seen ngërëm mag ci yoon wi te xeebul kenn ku ma mag xeebul benn taalibi mhm. ñëpp la wan jàmm mhm. di mbégte foo xoolee jëmam mbég ngay gis ci moom dëgg la bëgg ñëpp ëmbal ñëpp yiw kooku daal su wootee mhm. ñëpp war nañ koo wuyu ca na mu wootee dëgg la te jëfe ndigalam te moytu ay tereem te góorlu di ko ñaanal mu yàgg fi tewél dëgg la jërëjëf sëñ Ablaye sëñ Jibril xanaa ñu ñëw ci dernier kàddu yi balaa sëñ Xaadim a tëj euh, ñu mën a tàggatoo sëñ Xaadim la ñuy ñëwaat léegi ci moom su ko defee mu tëjal ñu li nga xam ne ni mooy thème bi ñu door a ñëw def benn tour su ko di tàggatoo su ko defee sëñ Pape Ndiaye tëjal ñu ko ak xasida eh, ndax moom tubaarkàlla Cees la jóge waaye ñu gën a préciser rek sëñ Jibril ci eh, sëriñ bi ci yërmandeem moo sàkku fu kër sëñ Touba mën a nekk rek ñu dundale fa la onze bi njàngum xasida bi nag nañ koy defee Touba noonu lañ koy defee fu doon ci kër sëñ Touba yi mooy sëñ bi lim ci bëgg mooy mu sell te itam mu andando ak teggin yi nga xam ni mom la khasside war am te it ñu gëna wormal khasside yi gën ko te taxaw di jàkkaarloog suñu borom di ñaan li nga xam mo ta ñëpp yalla jaarale ko ci barkeb seigne touba khasside yi jële ko ci réew mi te gu gëm ne mën na lepp ndax khasside ya nga fajj suñu aaju di fajj suñu jangoro war nañu gëm ne mën nako koo suñu mbokk yi ñu dëkkandool sax te xamuñu luy khasside nak la sëriñ bi joxe ndigal li terewul ñi nga xam ne ñooy kuréelu xaside yi ak ahlu bi yëpp sëriñ bi woone leen ci Touba ñoom ñu ñëw dundale ko foofu ca dëkk bu sell ba ci bernde yi ci yaatal ndax ku munta durusit mënoo jàng yàlla taw fii xeelawut ñëpp mën a jàng waaye kum doon it am nga ci sa doole aslaf soo mën a sàkku def ko ca biir maa ngi jot léegi préciser mhm. ci ñu góorlu ci li fay dem mhm. ndax bis la boo xam ni mhm. ña fay daje day am lu nuy jëfandikoo te taalibe yi ku ne ak fa nga mane tey ji am na koo xam lam ma ne mooy joxe ay bernde ñay jëfandikoo bernde bokk ak moom tuyaaba sëñ bi dafa waxoon sëñ Mbàkke Juuf radiyallahu anhu Mbàkke Juuf mu ni ko Mbàkke mu ni ko dugal ci kees gële nga xoolal ma ndax soxna yi indi nañ fa xéewal yi sëñ Mbàkke Juuf dugg ci biir ñëw ni ko fekk naa fa fukki ndab ak ñaar yuy defi xéewal sëñ bi ni ko boo demee séddu ko ci digg bi nga jël benn xaaj bi joxal ma ko jigéen ña fa ñu nekk mu dem jël juróom benni bool ya bool ya yóbbul ko jigéen ña del si sëñ bi ni ko duggaatal ci kees gi la fa des nga xaajaat ko ci digg bi mu xaajaat ko muy ñett ñetti ndab mu ne ko yóbbu ko fa ngeen di liggéeyee ci sama liggéey bi ngeen jëfandikoo ko sëñ Mbàkke Juuf ni cëy yàlla sëñ Tuubaa ni ko noonu naa am loo wax mu ne ko dama ni cëy yàlla sëñ bi ni ko lu la yéem ci li ma wax mu ne ko damaa bëggoon a am doole jii mbokk yi am di togg xéewal ko indi te awma ko lii tax may may yéemu ci sama borom sëñ bi ni ko yaag ñi koy indi keppayam ndax tuyaaba giñ ciy am su fekkoon yéen ñi koy jëfandikoo lekku leen ko day yàqu te ñam buñ ko defaree mu yàqu amatul tuyaaba pour yiw man caa am day fekk tuyaaba am te bu yàqoo lu yàqu du am tuyaaba kon yéen ñi leen ko defaral ba yàquwul lekk ko yéen ak ñoom ña ko joxe yéen a yem tuyaaba ndax su ngeen ko bàyyi woon duñ ca am tuyaaba kon xam tamit ni yëf yi ñay indi ji la bokk am na ñoo xam joxe la ñu mën am na ñoo xam jàng la ñu mën dëgg la kon la nga mën a rek nga fare fa loolu sëñ bi na ko taam góorgóorlu ci bu baax ba sàmmonteeg teggin yi ak warma bi ak ni ko bëggee eh, kon Touba lay doon incha allah ak mboolem fu Touba yi nekk ci eh, réew mi ak bitim réew ñi nekk bitim réew diaspora bi yëpp ñi ngi yónnee ay bataaxal di wax ne ñoom it danañ ko dundale foofa maa ngi jot léegi message sëriñ Basiru Mbàkke moom eh, borom Darou Moti sëñ Bas Anta mu wax ni foofe ca Darou Moti ni ko sëriñ bi bëggee noonu lañ ko fay defee incha allahu taala ci yaatal gépp rek waaye waaye eh, ki nga xam ne ni itam mooy baylaat moom sëriñ Cheikh Abi moom it mi ngi wax ni foofee ko sëriñ bi sàkkoo fa lañ koy yaatale ñoom it ci ëllu xasida yëpp maa ngi jot léegi message sa njërim aw sëñ xaadim kebe xasid noonu noonu ak eh, kenn du sëriñ bi groupe kenn du sëriñ moom it fas nañu yéene ñoom tamit àndandoo ak kuréelu xasida yëpp ci yaatal ci bernde yi eh, ci sunu njiit yaa aw sow ak mboolem ñu ne ci ginnaaw yëpp ndax ñoom it ñu ngi ko yaatal ci réew mi bitim réew sëñ Jibril sëñ Lamine Diouf moom la waroon a jël ci téléphone waaye dafa xam ne ndeem yaa ngi fa yàgg sëñ Jibril rek lépp matale na ko moom la ñu di ko sant baax ci turu euh, télé bi ak sëñ Assane Mbuub mi yoroon communication bi ak sëñ Gànna Mesre sëñ Fallou Gala Silla euh, waaye gërëmaat sëñ Youssou Diop bu baax a baax ci taxawaay yi euh, gërëm bu baax a baax Adja Asugay Saalihaat ak Saalihaat ba nekk Canada moom it Amérique moom it mi ngi topp kii bi di wax ne moom it Adja Sougay mu tuwaarkal la joxe na ndawal ak ay ci yu bare bari yóbbu ko ca daara istarxe ñu ñaanal sëñ Maam Mor Mbàkke moom sëñ Fall nag xam ngeen ni fii dañoo am jëwriñ muy alaaji Mbàkke yu fay euh, lu ci am rek ca moom dana ko yaatal incha allah waaye ñu di ko ñaanal ndax ba jàppee bis bi ba léegi yaakaar naa lépp lu jëm ci jumtukaayu tele bi ak lu jëm ci xalaatam ak dooleem bàyyiwu ko ginnaaw lépp boole na ko ci li nga xam ne mooy programme bis bi ñu diko sante sant bu baaxa baax diko ñaanal ci taxawaay yu am solo yooyu yàlla gën koo dëgëral kàttanal ko ndax li waral sëriñ bi jiital ko fii kat mooy mate ko sëkk tey lépp loo xam jëm na rek laa mënta tooñ waaye tasawuf ak Massamba Ndiaye dem lu mu yàkk fi maag sëñ Abdoulaye Diop Bichri wañu dee waaye nañ la ak euh, sëñ Afi Thiobane sëñ Jibril mi ngi wax rek keroog taxawaay bi ci tuba TV war am ndax moom it euh, ba bis bi tàmbalee ba léegi bañ dem ci réunion ba ñoo ko teewaloon waaye lépp da koo jëlaat dugalaat rek danañ jël doole jeeg mboolem matériel yi mu laaj def ko ci bés ba itam incha allahu rabbi noonu rek lay demee kon nag euh, nu ngi ñaan yàlla defal nu tawfeex ko defee comme ni ñu koy defee li ci buy dégle jàngale alquran waaye nag bu dee fa Tuubaa moom ahlu xasida yi sëriñ bi ak ñi nga xam ne ni ñoo ci nekk euh, jàpp naa ne ñu ñëpp incha allahu rabbi danañ fa daje ci dundale ko ni ko Seex Mamadul Muntaxa ku fa noppi nag mu leer la ne dangaa mel ni am day biraan rek dem yóbbu sa seen ndox boo paree foratal say sa sa yóbbu ndax màggal gaa ngi ñëw te Baay Faal a bare dëkk bi te bis boobu nag mooy final bi <laughs> final bi daa war a kii waaye yóbbu sa sa ndox rek ñëw toog lépp set wicc ñu sàmmonteeg warma yi sàmmonteeg eh, àq xaside yi loolu rek moo nekkoon liñ ci yaatal sëñ Jibril ma bàyyi la nga ñëwaat ak sëñ Xaadim su ko defee eh, ñu daal di tëj jotaay bi li mhm. waxtaane mhm. eh, moo ni moo ni toll mhm. noonu ñu ko waxee it te gaa ñi gannaaw dañuy laxu saayu toog fa ñuy toog di jàng xaside yi di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxna maam Bousso Tamba moom it mi ngi topp jataay bi te di ko rafetlu mm-hmm. ñu ngi koy ziar di rakk si sëñ Fallou Bousso Tamba mm-hmm. koy ziar bu baax a baax mm-hmm. kon euh, sëñ Xaadim foofu rek xam naa dellu siwaat ci yóbbal bi xamante ni nag moom ngay yabee ki nga xamante ni ñoo ci jëm bis yu mel ci yu mel noonu ak euh, yu nuy gànnaayoo daal bu ñuy demee ci yu mel noonu muy lu am solo. jërëjëf sàgg fi te weer waaye du nuyu baax suñu gànnaaw mesere ak numéro yëpp nee naa ko yónnee numéro gaa yëpp ndax bëgg ta wax. <laughs> waaye bu dee lu baax. Cheikh Amadou Fadil Mbacke dafa am benn taalib bu mu sa toogal. ba mu yàgg ne ko dama laa bëgg a defar. ba mu ko waxee mu ni teg xam naa mu jàpp ni day ñaan rek yi fi sotti. suñ fal bi ni ko defar gi nag ndigal la looy looy jëfe mun ko jotaay bu baax boo dem na nga taxoo ki teggin. ndax bépp jotaay bu baax bu ne mhm. sañ Tuubaa dina fa ñëw ay yoon waaye ki xasida yi ak maandu rek la laaj te loolu nag sëñ Tuubaa da koo jàngale ci njaareem sëñ laay mhm. dafa woo sëñ Moodu Mustafaa Mbàkke ak sëñ Masamba ak sëñ Moodu Masamba jóg mhm. mun leen su ngeen delloo seeni kër ba mu ngi njaareem basang romb bu jaan ku ñëw rek mu joxoñ la genn basang nga teg fa say xasida ndax bëggul xasida yi jaxasoo ñu noppee mun leen yàlla maandu la bëgg mhm. waxi sëñ Tuubaa nag laay wax mu mhm. ne yàlla maandu la bëgg mhm. daal leen ni xas yi laa bëgg leen xasida yii day képp ko ak yi nga xam ne seen ak jot mayu leen ngeen njàng waaye yéen a ngi koy wormaal xam nga taalibe yi xasida yi ni am yëpp mën na koo jàng mais fi da ngay gis koo xam ne boo demoon kër am na néeg boo xam ne ay xasida rek la fa ne mm-hmm. loolu mënut a daje mën koo jàng lépp waaye sëriñ bi ni mu ngi koy wax dañuy xasida yi nga xam ne seen ak jot gis nga may ne leen ngeen koy jàng ak waxtu mu mën a doon mm-hmm. ak xasida yi nga xam ne seen ak jot mayu leen ngeen jàng ko ñooyam ci yéen mm-hmm. dal leen ni képp ku faatu ku ci faatu bu ñuy defar bàmmeel ba xasida yaa ngi taxaw di leen xaar nee na gu nekk sëñ tubaa nee na jëmm lay doon sëñ tubaa wax loolu nee ne xasida gu nekk jëmm lay doon nee na saa la dencee ci bàmmeel bi ñoo fay nek ak yow dila wétali lepp lo xamé moom ci lu bax dinañ la ko andi ginnaw mhm. nee fepp fo nara jaar ak tiis mhm. ñoo la ci musal mhm. nee bo boo sa kanam borom do lay yi nee na ñoo lay sa digëndek ak sa borom ngeen ànd aljana té rok ndénkaan li sëñ tuba jox Masamba Diop sam ak euh Masamba ak sëñ modou Moustapha Mbàkke kon lu mu tekki limi tekki moy ndaje ndaje ma yépp ay teggan rek moko lal ndax yoonu murit yoonu yàlla boo ci nekkee dafa mel da ngay rooti te root nag faaw nga wut ndab loo xam ne moom ngay roote nee ndab li ngay roote ci ndoxum yàlla moo ay teggin kon teggin rek moo ci nekk ndax teggin bu duggee ju baax dana dugg parce que teggin mooy lépp kon loolu mooy ndenkaan li li ci mhm. toppit mhm. mooy ñu ngi ñaan yàlla ñu yegg ci jàmm mhm. ndax bis def ñaari bit mooy dat yi mu tombeel dafa doy waar ndax benn bi mooy benn <clears throat> fan ci weeru mu muharam wala ñaari fan benn fan lay doon wala ñaari fan muy benn ñaareel bi mooy buñ xoolee ci weeru tubaab li mu tombeel date boobu xam ngeen date bu dam date bu am histoire da ci yoonu murit parce que li mu août la suñ tubaab génn mbàkki baar la onze boobu fu mu ko fekk Louga la onze boobu foofu la ko fekk te gis ngeen ci xas rek ayesaminnilaahu inda jeewali ñaari dëkk yooyu keroog Gabon fu mu fu mu fu mu ko tegaw tiis tudd na ko ci xasida gi waaye déggoo mu tudd kokki déggoo mu tudd luga lu ko waral mooy foofu jàmm rek la fekk te jàmm jooju nag mooy la onze bii mhm. inna arsalnaaka shahidan wa mubashiran seigne sëñ mhm. kon ñu ngi ñaan yalla ñu yegg ci ak jàmm di len sant bu baax nag ci waaw mhm. bashiri mominin mi neen waaw maanaam ñu ngi len di ñaan ñu ngi sant bu baax ci jotaay bi ndax jotaay bi amna solo ñaan yalla nak manam ñu yegg ci ak jàmm ñaan seigne Muntaxa mu yàgg fi lo te ak mboolem kilifay diine yi ñaan yàlla defañ jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf jërëjëf seigne khadim dañ soxna lo mhm. momit joxe na ndigal neena dina ko amale ci buntu kërëm gogu ci dar khudus ña ngi koy bass Mm-hmm. nee na ñuy defee gàmm gi rek nañ ko nañ tënk kàddu yi ak tàggoo yi su ko defee suñ pap mën a mën a tëj ñu suñ amit xam naa soxna yi ñu jaajëfal leen bu baax waaw euh, soxna Yaasin Bamba wax soxna maam aw Bousso Mboup mu mm-hmm. sëñ Fallou mm-hmm. tey kontaan na lool xol mi sedd na bi mu jàkkaarloog jëmm yi euh, soxna Adama Ndiaye Murid Saadix moom dama ko yeb waaye tubaarkàlla jàmbaar la ak eh, soxna na Birane mu sëñ Fallu wax dëgg yàlla seen taxawaay am na solo lool ñoom ñooy ñooy rekki maître di Mbay avocat mm-hmm. nga xam moom ku ne xam na mm-hmm. sama digganteeg moom mm-hmm. Euh, sunu yaay musli it xam nga ne télé bii moom bañ na ko ba doo ko faa kale moom Touba TV lu koy jàll mu tëla mhm. moom boo ko laajee mox la mhm. moom Touba TV la kale téléem mhm. waaye nag moom daa foobu rek ne moom léppam sëñ Muntaxa sëñ Touba la day jëli bagage am xam naa ne Jibril Ndaw moom bu daleeg yaa musli moom tubaarkàlla dana métti lool dana yàgg ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci seen teewaay sëñ Saliou waaw amiin jërëjëf sëñ sëñ Xaadim ak sëñ Abdoulaye sëñ Pape techniciens ci télé bi yëpp ak soxna yu baax yi ngeen wax. ni ñuy wax mooy ab taalibe sañ ta digal morom ka. léegi sax ma gis koo xam ne day mel ni moomam murid yi buy wax ak ñoom. waaye ab ay wax ñu rafetal ko rek. waaw suñ mag bi nag ma waxoon la tafalu sayan bi xayri isni fal isnu sartun fi xabuli sani kon sëñ bi digle na nanu àndu ñun murit yëpp jëf ndigal li rek waaw ñi nga xam ne ñoom la ci jiital ñu jiitu ci. Mm-hmm. Euh, loolu rek mooy wax ci. li ci des it mooy sëñ Baara Diané daf maa nettali ma sa way juróom sëñ Abdoulahi Diané daa nekk gànnaar ñetti at di jàngaleel sëñ Touba. Mm-hmm. alxuraan mu nee na am ku wax baayam ni ko fii jàng xew fi liggéey fi xew nee na baayam mel ni ku ci am njëgi-njëgi ma ñëw ci sëñ Touba sëñ Abdoulaye Diané nee na ma ñëw ci sëñ Touba mu ne ma ana lu mu doon nee ma ni ko ah man de dañ may fekk feema ne wax ni fii jàngale xewu jàng ak jàngale xewu fi liggéey fi xew nen ma Abdoulaye jàng xewu fi liggéey xewu fi ndigal fi xew ñu digal la nga jëf jariñu rek fi xew la ñuy amee li ñu bëgg ci sëñ Touba ñu baal ñu xàq bu dee am lu dëng bu jubee sëriñ bi la noonu koy sant te koy delloo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëñ Jibril jërëjëf xam naa sëñ Pape rek. sëñ Pape mooy tëj moom daan la waaye waaw ñu bàyyi ko mu tàggat waaw dangay booy tëj rek. waaw defaale benn tàggatoo waaw defaale ko ab tàggatoo. waaw sant général bu baax ñuy sant bu baax a baax. Mm-hmm. rafetlu jataay bi tey ñaan suñu borom. Mm-hmm. Euh, yóbbu ñu ci jàmm. Mm-hmm. di ñaan yi tamit taxawaay yëpp. xam ni daal organisation yi mu ngi dox. am na ay comité de pilotage yu ñu teg. mbooleem luy journaliste. ak technicien buy yëngu foofu nan lañ koy def. ndax bis bi rëy na yaatu na. te fenn fu nekk. war nañ faa teew. wane la nga xamante ni moom moo fa nekk. Euh, sëñ Assane mi ngi ànd ak sëñ Assane Mboup mi ngi ànd ak euh, comité bu am solo fas nañ yéene daal fépp foo xamante ni yoo xamante ni fépp fu euh, waaye nekk bëgg seetaan yaay xool fa la ca neex. nga jàpp ko di ko seetaan lien boobu tamit dinañ ko def direct mm-hmm. dina am tamit yeneen yoo xamante ne nag dina ànd ak événementiel bi mm-hmm. mooy euh, am modérateur yeeg yéen ñu mel ni yéen mm-hmm. di expliquer nit ñi ak yu ma noonu di def live bi en ak yu ma noonu kon daal waajal nañ ko waajal nañ ci tamit lépp loo xamante ne ba mu nekk daal noo xamante ni wax dëgg yàlla dinañ ko def nu kawe njot kon nag képp koo xamante ni tamit suñu borom dogal na ne jote gi Touba yi tamit du du yomb. Mm-hmm. waaye daal ñu xam ni tamit tegal nañ leen ay dispositifs yoo xamante ni incha allah dara du leen ci dara dara du leen ci. mooy techniciens yi du dara loo xamante ni jëggaani nañ ko. Mm-hmm. lépp ci suñu biir la nekk. muy techniciens yi di di ñëpp daal ñu fas yéene koo def te loolu yaakaar naa ne tamit ñu yëpp. ñoo war a maase ñaan ko moom Cheikh Mouhamadou Mountakha mu jël mbas mi ñaan mbas mi dàqal ñu ko ndax kat loolu dañ ciy toll mag ñi ba leen njéeréer yi sonalee dana ñëw suñ faal nu ko jële ko fi mu jële ko fi mhm. yeneen ak yeneen yu nekk am na fi mhm. sëñ bi nag nga xam ne fa yi nañ dajaloo dem ci moom dëgg la ni ko na ko fi jële wallaay loolu daal man laa ci xam naa sañu ma koo digal sañu maa gaar waaye sañ naa nag wax kilifa yi jërëjëf bu ñu demee ñu wax ko loolu jërëjëf sëñ Jibril ñu gërëm ko baax a baax eh, xam ngeen ne sikkimam bi bu ngeen ko xoolee xam ne masque dong nga ko ko teg <laughs> te wax dëgg yàlla war naa tàggoog masque ah, Jibril melewul melut woon nii waaye Pape Cheikh gis nga ko tubaarkàlla masque bi muy takk moo mujj dem ba ci sikkim bi xam nga ca ba ñuy door na lu dul xaalis nañ ko laaj lim man na lim man du joxe milliard daana ñun ñëpp nañ dajaloo dem ba ca moom ne ko wala bu nit ñi demee dañuy dee kenn kenn xamoo sëñ Tuubaa ku jàpp ne loola daray ayib da caa nekk mbaa tooke da caa nekk xamoo sëñ Tuubaa murid dañoo woowle murid dañoo dëgër bopp murid di faale kenn yooyu yëpp baax na ndax jig nañu moo nu indi yoon yi fii mu ne ndax yoon yi am na ñoo xam nekkoon nañ fi buñ sañoon semaine la fi def sëñ Tuubaa la yàlla fay tey ak ëllëg wala sto as alu xayran naafiillaahi bu sëñ Muntaxaa wootee yàlla moo ko déy tax mu woote mu woote ba jàll rythme bu ñu ko wàcc mukk sëñ Muntaxa won nañu yoon wi ca la ñuy jaar rek ba màggal gi jàll nun nag lëjaluñ kenn sonaluñ kenn li tax sonaluñ kenn mooy ki nu am li mu am doy nañu sëkk jéggaaniwuñ dara wutiwuñ dara boolewuñ dara ak sunu pas-pas itam nag sëñ Tuubaa rek ca la ñuy kon nag noo ngi sant bu baax a baax mbokki taalib sal mooy fexe ba kii ca tënku ci baaja nga xam ne moo nu mënal fii mënal nu fële lu mu bëgg ca la ñuy xëy ca la ñuy gont ñuy dee noo ngi sant ñi doon topp ñëpp di euh, Cheikh Abdou Bali mi ngi wax léegi ne euh, la set xam nga tey lañ doon teg xeer wu am solo woowu nga xam ne ni euh, fële ca euh, ca ca Touba ñu di ko sant baax di ci ci ci turu sëñ Moustapha Ndiagne di ziar baax sëñ Jibril soxna Fat Jatara man ngi ca Amérique di ta doomi sëñ Moustapha Jatara sëñ Yirim Aw waaye dafa am soxna su baax ndeysaan soppeeb sëñ Ablaay mii la ak sëñ Saaliw dafa nekk ca Montréal muy soxna Maguette soxna bi ni ma ko waxee rek ñoo ngi waajal ñoom tamit liggéey bu am solo boobu eh, di jaarat ba alaaji mbàkk yu fay mm, sëñ ba sëñ Mamoor mm-hmm. say jaxate ni ko suñu lay wax waaw sëñ Baara noo war a ànd ak moom ñeent fukki guddi bàyyam boobu la ak mboolem mbokkam yi dëgg la waaye soxna say Baara mm-hmm. yàlla daa dogal ñu yaroo ca kër ga mm-hmm. ndax Baye Moussa mi ko yoroon ñu way sëñ Bas jaxate rida noo ngi ñaan sans borom mu yokk ay leeram te mhm. taasu ci barkeem ci barkeem Cheikh Mouhamadou Lamine way juróom bu baax waaye ñoo ngi koy jaale sëñ Abdou Lahat ak sëñ Bas ba ci sëñ Fallu mhm. njabootam gépp ñoo ngi leen koy jaale mhm. jërëjëf kon sañ daam ñu ngi lay sant di gërëm euh, ci réalisation ba am solo bi moom murid la mi ngi waajal yëf yi waaye sëñ Pape Cheikh bay mi nga xam ne boobaak léegi ñoo fi nekkandoo euh, ci liggéey gërëm bu baax jekk baay laat tey maa ngi ca réalisation bi ñu ko sant bu baax di ko gërëm euh, ñoom ñu ngi waajal seen équipe tubaarkàlla di leen ñaanal yàlla defal leen tawfiix sànq gis naa mu lay noggudu sëñ Pape Cheikh temps yooyu la jël waaye terewul ñu gërëm ko rek Baye Cheikh Balla Samb ñu ngi koy nuyu balu laat àq di ñaan sëñ Touba defal na tawfiix Adja Sougey ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaare di ko ñaanal yàlla defal ko tawfiix di leen jox dig daje insha allahu taala ci beneen jataay naan leen guddig jàmm lay leen maal baraka asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yow mi tax may nduru kenn mbaa dara te ma koon ci yow rekk laa war di wax yow borom kun fa yëkkoon xam naa di nga ma ko jéggal ndax xam nga sama biir sa yërmande daa bari ba dooma bàyyi ci biir dama bëgg rekk ñépp xam ni li ma defal dafa yi du lu kenn man ci doomam doonu ndey te du baay bala yàlla defee xarit yonen bi def la xarit malaaka yi def la xarit yonen yépp di sa xarit yawit nga ñëw ci biir nit ñi di ci tànn ay xarit am na ci baay ak imaam waaye yaa def xarit wóor na borom daaru muxti wóor na ndaayaan may taaw wóor na borom ñaari leeri duma sa xaritu daaw wóor na borom daaru muxti wóor na ndaayaan may taaw wóor na borom ñaari leeri duma sa xaritu daaw bu daaw laag bu daaw géej tey bu ak déwén ba faw sa xarit lay doon man te dañ te du deñ duma ni man rekk la ndax ñépp bokk yam ci yow xaadim docteur maa ko ñee ndax géntam ga ko génte ca Égypte moo tax Mbàkke ma ko koy ñee ndax ku tedd kii mu wax lii leer na ma ni ca saalihi na ya nga bokk ma wax lii